la la la nekk fii bëgg a am social security dem ba ca working permit ak green card ak yu ñu mel am na legal chaperon is a non NGO organisation nekk fii bëgg a am social security dem ba ca working permit ak green card ak ñu mel am na legal chaperon is a non NGO organisation buy dimbale ñi nga xam ne immigrant leen yi nekk fii ci Amérique wutuñ visa mayuñ visa dugaluñ kenn ci réew mi ku dugg ba pare la ñuy teg ci yoon boo bëggee jàngi-jàngi yow topp ma sa réseau bi sa réseau bi même suma jàmmuwaay ñooñu rek la fi nekkal yow topp ma sa réseau bi sa réseau bi même suma jàmmuwaay ñooñu rek la fi nekkal yow topp ma sa réseau bi sa réseau bi même suma jàmmuwaay ñooñu rek la fi nekkal yow topp ma sa réseau bi sa réseau bi même suma jàmmuwaay ñooñu rek la fi nekkal dimbali leen taxawu leen ñoom loolu la ñuy def incha allah euh, góor goo xam ne da nga am problème mu ngóora sa biir bi di metti suukar si dem la ba doo mën a taxawal sa biir bi di def ngelaw ngay am problème mu gaaw a taxawal wala ngay taxawal du dëgëral wala nga taxawal mu dëgër mais soo dugalee rek daanu loolu du feebar situation la ak circonstance mais ak bu ci mën a doon am na garab bu tudd àndalaaburi ndox la danga koy naan benn kaas déedéet benn bitel déedéet guux rek benn guux rek affaire bi xam nga bu fekkee ne yaa ngi Amérique fii moom santal yàlla àndalaa ñëw na ba Amérique soo wootee man mii ngay jot maa lay jaay jëlal numéro bi nante ma bul wax la neexee sa bul wax message rek man la diw àndalaa laa bëgg nu may def ñu tontu la jaay la nga naan toj dëkk bi xam ngeen ne bii am na njëriñ fu ne waaye Amérique la ëppee njëriñ kii ñeme na yàlla nee na ma sa parfum lan la <laughs> léegi bu fekkee yaa ngi Amérique nga bëgg ci àndalaa buri bi da ngay def 992 867 86 43 in English 929 867 8643 loolu la. kon tey Cheikh Habib Ndiaye la ñuy am waxtaan ci yàlla la da ngeen di tappate di partage ba mu mat mille personnes ñu woo ko mu ñëw ñu commencé. maam Jaara njaay mu nga New York jigéen ju baax la te bëgg Seyduna Muhammad maa ngi koy nuyu di ko ziyaare di ziyaar waa këram yaayam papaam njabootam yépp xale bu am jom la gàtt tànk gàtt làmmiñ du jotee kenn yal na ko yàlla defal jàmm saxal ko ci moom. yàlla bu mu dellu mooy am na doom jum tuddee yonentu yàlla Muhammad yàlla bu mu dellu mooy dem na màkk yéen ñëpp nag maa ngi leen di ñaanal di leen ziyaara yàlla na seen jàmm yàgg yéen ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm yërmande ak barke yàlla na ko yàlla def ci yéen mun Muntaxa xaw ma fu mu nekk ci àddina waaye na ko yàlla defal jàmm yére bii ma soloon ñeenti at ci ginnaaw la ko yëkkati woon jox ma ko hàddiya Baay Ñas ma ne ko man duma jël alalu sëtu Baay ku ma ci joxutit bàyyi laak li nga yor mu ne ma bëgg gi ma bëgg bàyyi laa la ko joxee moo nekk nii moo tax bi ma demee Amérique bàyyi ko ginnaaw dama cee fay xaalis pour ñu indil ma ko ndax cadeau dafa neex ci xol rawatina sa sang rawatina nit ku baax ku mel ni moom jox la cadeau danga koy fu ngeen ko gis yéen ñi koy jot na leen ko Cheikh Ahmed Cissé wax na ne jërëjëf ci liñ ko defal <laughs> ñu bari ñu ngi may wax docteur Khadim buso pour que mu ñëw waxtaan ak Cheikh Mbacke Sakho ak yeneen tur yiñ ma tuddal mais bu Khadim Bousso moom ci xam-xam bu wér boo ak Cheikh Mbacke Sakho ak yeneen tur yiñ ma tuddal mais bu Khadim Bousso ci xam bu wér boo waxtaan ak Cheikh Mbacke Sakho ak yeneen tur yiñ ma tuddal mais bu Khadim Bousso moom ci xam-xam bu wér boo xam waxtaan ak Cheikh Mbacke Sakho ak yeneen tur yiñ ma tuddal mais bu Khadim Bousso moom ci xam-xam bu wér boo xam ak conférence ak waxtaan Cheikh Mbacke Sakho nekk fii ci dëkk bi di wax alquran di taxaw ci alquran di weddi sunna ci weddi goo xam ne kenn mënu ko cee daaneel di weddi suñ julli yi niñ koy jullee ci alquran te kenn mënu ko cee daaneel kon Khadim Bousso bu toogee ci réew mi mën a am masala yu dajji Cheikh Mbacke Sakho te toogut ak moom lu Cheikh Mbacke yàq benn moom yàq na ko ñaar ndax ki xam ak ki xamul saa yu ñu defee njumte ki xamul mooy gën a oyof la nit ki ki xam senegal nag boroom xam-xam yi xamuñ leen ñi ñuy tuddee boroom xam-xam doonuñ ko yenn saa yi nag ñu tuddee boroom xam-xam ku ko doon ma gëm ne docteur Khadim Bousso ci la bokk man loolu laa gëm su ma gëm-gëm la nag maa ko moom léegi nag su fekkee ne moom boppam lay xool di sàmm boppam di tànn ka muy toogal ak fa muy toogee fa muy waxee kon moom xam-xam ñoru ko te du ndawal xam-xam boppam rek la fi nekkal su boobaa nag dafay doon niti intérêt ni man te am na ci duraan ndax man suma bopp rek laa ne ci li ma neex laay xëy di ci gont lu ma neex laay wax lu ma neex laay sol fu ma neex laay tëdd lu ma neex laay lekk moo tax askanawloo ma suma bopp ci benn kër diine askanalewu ma suma bopp benn kilifa suma baay ma jur suma yaay ma jur point kon nangeen xam ne docteur xaadim buso balaa man joxewoon woon na rendez-vous ne dina toog ak Cheikh Mbacke Sakho mais la ko fomm ca moom la te su may buntu ubbi naa ko su bëggee toog waxtaan ci xam-xam ci alquran bugg ñoo dugg ci vie privée kenn ndax vie privée Cheikh Mbacke Sakho ñoruñu suma ma vie privée ñoruñu vie privée docteur Khadim Bousso ñoru kenn li ñu séq muy alquran ak sunnatu rasulillahi ñuy waxtaan ci loolu képp su boobaa boroom xel yi déglu dem li leen seen xel may ñu nangu ko ndax Cheikh Mbacké Sakho fa mu taxaw wedd tasaw eh, sunna fala mazhab yi daanoo masab su daanu sufiyanke day daanu sufiyanke su daanu tarixa murid day daanu tarixa tijaan day daanu xaadir day daanu laayal day daanu nga nekk boroom xam-xam na nag démb Cheikh Mbacke Sakho deux cent quatre-vingt-cinq mille personnes ñoo ko seetaan fii ci suma live bokkut ak ba mu taseeg fa mu tasaaroo képp ku gëm ne dafay fen gëm ne waxut dëgg te nga ne xam nga lu ko war a weddi ñëw ko fa mu ko waxee yow su fenee benn duul nga ñaar wax ji nag dama xamut lu ciy rafet ak lu ciy ñaaw mais li ciy dëgg laa xam diine jii du force du ndono du askan du yaakaar naa du foog naa yow mii di ma di ma bindal maam Makhtar Gueye Jamra yaa ngi koy saaga maam Makhtar Gueye xamut dara dara dara dara dara ci lislaamu senegal waxuma la ak lislaamu yàlla <laughs> moom munu cee xam dara débat wu xam-xam niveau xam-xam weerantey masala doo ci dégg Makhtar Gueye mukk ba àdduna tukki ci li nga koy dégg mooy toog tele di seetaan jigéen ñuy fóonante ba mu ko dal mënta tëddee kenn mu ne fóonante baaxul jug di ko xeex di seetaan musique nit ñi di lëmbal mu ne dafa ëpp den waroon a solu waaye toog ubbi alquran ne masala bii rafetul mba matarge doo ko mës a gis ci xeex boobu nit ku ne am nga mirit am nga foo yem tuxkatu yàmbaa la xeex màggatam caga la caga lay xeex saay-saay la saay-saay yu mel ni man rek lay xeex mais nit ñu baax ñi nga xam ne diine leen togg ba ñu ñor bu ñuy waxtaan ci diine duñu tëj du ñu xalab du ñu bonal dañuy indi masala teg te xam ne yahdi man yasha wa yuhliku man yasha du ñu forcer kenn ndax laa ikraha fi diini kon su may wax ci niveau xam-xam yu toll nii ngir yàlla ak yonantu bu leen ma indil maam Makhtar Gueye dafa may énervé dafay yàq suma journée bugguma loolu yéen may tooñ bu ko fi tudd لنا لا إله إلا الله xanaa xamu leen maam Maxtar Gueye waxoon naa ko kaa ñu toog man ak yow waxtaan ci xam-xam du ñëw ci alquran rek pour faram-fàcce alquran rek moom xamu ko munu cee waxtaan munu ko léegi kooku leen bàyyi muy réglementé diine l'islam Sénégal te ñu ne lislaam leen yor <laughs> Jamra di wuyoo récépissé récépissé bi ku ko ko jox constitution Sénégal constitution ku ko togg xéeféer bu gëmut lislaam ni yàlla avec sa ngeen ne moo nekk ci dëgg mais dañu jàmm waay diine ji du du ngeen ko foogeek ni mu leen arrangé de doxewul salaamaaleykum. waaw Ahmed suma vidéo bi dafa tëju. mën na am dina ubbeeku. laal ko foofu walla ñu wan la ko rek dina ubbeeku. fi Ndiaye asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mooy tàkk si boor yi foofu waaw ngelaw la ngelawam mu ngi ñëw ñi toog ak yow tam li ñuy ngurumtu mu ngi ñëw te bu ñuy seetaan live bi nañu wàññi nañu wàññi seen seen téléphone nga gis du écho ok euh, donc fayal ma bant léegi bul ma fi nekkal bi tuuti Thank you. baax na wala la maa ngi leen nuyu bu baax Ndiaye. fay naa la bu baax Cissé marhaban. Cheikh Ali Cheikh Aziz Ndiaye euh, Serigne Jim njaay Cheikh Barhamu Ndiaye ak yow Ndiaye. Ndiaye ni lan la ak faydu waaw Ndiaye ni nag moom xam nga Ndiaye lim doon rek boo xoolee Ndiaye moo tolloog yàlla bu ñuy wax waxaabu. wahaabu nag mooy kon bi yàlla bi nga xam ne mooy maye lépp moo tax suñ borob daf ñoo xaasal ñun njaayeen te boo xoolee itam njaay moom mooy ñas rek ñasan yi sax njaay sant mhm. ah, ki njëkk ci njaayeen ci faydu sëñ Ousmane Njaay la xale tey xamuñ ko su ma la laajoon ci moom benn deux minutes loo may wax ci moom eh, dama la naan taalibe bu matoon taalibe bu gëmoon sëriñam te doyloo ko daan topp ndëbbu sëriñam ba tax na kaweeg maqaama bi mu am loolu tax na bu njëkk a dund àdduna sëriñam Baay radiyallaahu anhu wax na ne amul benn fu may jeego suma tànk te bu ma geesoo gisuma sëñ Daaru Ousmane Ndiaye ci sama ginnaaw loolu yëpp nag xam-xam ak dëggu ak farlu moo ko mayoon. moom moom moom sëñ Daaru Ousmane seytaane am na wala amut. seytaane. waaw. waaw xam nga dañuy wax ne bu laajee ndax mbir am ne dañ naan lu fi indi tur bi bu fi tur bu amutoon tur bi du am dèjà tur boo gis rek su amutoon du am ndax dañuy wax ne ñett ñoo am te duñ taqale ko foo gis tur soo ko dàqee da dem ci melo foo gis melo da nga egg ci jëmm kon tur ak jëmm ak melo mënul ñaq seytaane am na. baat bi mooy lan mooy ak tàqale lan la nag ak définition seytaane mooy lan suñ borom jàngal nañu ko ci alquran wax na ne maami masalan kilifa seytaane yépp mooy iblis waaye nag am na sayaatinul ins ak sayaatinul jinn sayaatinul ins nag ay doomaadama aadama la ñuy doon looloo tax sax sëriñ jim suma mag daan na wax ne seytaane amut waaye luñ seetaan moo am lépp luñ seetaan rek bu yàggee mu nekk seytaane dégg naa ci borom xam-xam ñoo seytaane dafa am nguur tronam bi mooy comme li nga teg sa bopp bi ma teg ko suma bopp buur yi di ko teg seen bopp yi mu ci géej gi nguuru seytaane nu mu nekkee ak lu koy doxal ak kan moo koy doxal waaw iblis iblis la suñu borom may doole ju toll noonu xam nga yàlla bi mu bindee aadama alayhi comme ni ko jàngkat yëpp di waxee da ko wax na ko uskun anta wa sawjukal janna njëkk loolu dafa fekk yàlla farle ko te gënale ko ci kaw mbindeefam yépp moom aadama ndax bi ko yàlla bindee balaa mu koo bind dafa wax ay malaayikaam ne leen man yàlla danaa def suma xalifa ci kaw suuf xalifa boobu may def ci kaw suuf nag loolu dana wane ne kon ki kon nar a kooku walil waarisi maalil mawrus nit ki muy donn dafay yor kam donn lam yor te yàlla ku ne xam na ne moom moo yor xam-xam te kon dana jox aadama xam-xam bu ëpp bi mu jox malaayika yi bu ëpp bu mu jox iblis looloo tax bi mu waxee ak malaayika yi malaayika yëpp dañoo wax ne ah yàlla du bind ku ñu gën a xam yàlla na leen indi inni alamu maa laa taalamuun man xam naa lu ngeen xamul te loolu mooy suñ borom créé na mbindeef bu ñuy tuddee malaayika xamal na ko lu bari ci xam-xam créé na jinne xamal na leen lu bari ci xam-xam suñ borom dogal iblis nekk ci diggante jinne ak malaaka yàlla may ko daraja ju kawe ji toll noonu yàlla bi mu waxee loolu bind aadama iblis ne léegi usjudu li aadama yéen ñi nga xam ne yéen yéenay malaayka yi ak mbindeef yi fi ne leen aadama lu tax daf koo jox xam-xam ba noppi wa allama aadama wa allama aadama al asmaa kullaha daf koo gaaral asmaa yépp léegi nag gaaral ko malaayka yi ne leen am bi uuni bi asmaa i haula malaaka yi na ko laa ilma lana illa ma allamtana ñun loolu xamul rek xamuñ ko yàlla na aadama an bi hum xamal leen aadama commencé di leen xamal di leen xamal yàlla na leen comme moo leen sut ci xam-xam xamal na leen dëggal na li ma waxoon ne inni alamu ma la taalamun léegi nag usjudu lahu sujootal leen aadama fa sajjadu ila iblisa abba wastakbara wa kaana min alkafirin iblis iblis bañ na moom du ko sujootal ñu ne ko tax mu ne xalaxta nii min neerin wa xalaxtuhu min tiinin bàyyi nee na li mu bëggoon a wax mooy xalaxta nii min nuurin wa xalaxtu min tiinin waaye xamut ne li yàlla bind ci tiin moo gën a sakkanal lim bind ci safara ndax safara loo ko jox da koy lakk ban nag loo fa sotti daf la koy delloowaat da koy fulandi buy ñëw kooku nag lañ wax ne moom ci jëmi boppam suñ borom daf koo wax ne ko boyal naa la ndax jaamu woon na yàlla ba am benn daraja bi te yàlla ne du tas yaakaar te ku ko jaamu dana la ko fay mu ne ko fayee ma ko nga bàyyi ma ci àdduna man ak sama njaboot dinaa boo dinaa beewuloo mbooleem koo xam ne dafa topp jëm dafa jóge ci jëmm jii di aadama yàlla ne ko ndara ñi ma tànn loolu moo tax mu samp nguuram yàlla sampal yenentu yi seen nguur yenentu yàlla muhammad ak iblis ba tey ñu ngi bëree ba léegi iblis daanee daaneegul iblis ndax saa yu ko yenoo ci ko rek iblis jogaat taxawaat dëkk ko ba tax na ñaari géew buñ dajee da ngay gis ne bii caaxaan la bii dëgg la caaxaan bi mooy ëpp doole dëgg bi te yaakaar naa ne ci live yi ñuy def ak yooyu war nga ko cee xam donc nguuram ci la jógee. léegi nguuru iblis gi lan moo koy doxal ak chaise iblis fan la nekk. ok iblis euh, iblis nguuram li koy doxal maanaam mooy ak njobootam nit nag mën ngaa bokk ci njoboot ak iblis te doo ko xam maanaam li ñu tuddee asayaatinul ins dafa am ci nguuru iblis lañ bokk am li ñu tuddee as sayaatinul jinni dafa am ci nguuru iblis lañ bokk ñooñu nag donc ñoom ñëpp ñu ngi communiquer ci nguuru iblis iblis nag maanaam nguuram mu ngi ko samp ci kaw safara maanaam suñu borom nguuru iblis daf ko tànk ci kaw safara fépp fu safara yi tàkkee tàngoor di fa am nguur ak iblis àgg na fa iblis du ku nekk ci benn barab. bu ñu war a wax ne ci gox bii la nekk di leen que ñenn ci borom xam-xam yi ne yàlla may na ko kàttan ba nguuram mu ko sampu ci diggante asamaan ak suuf ñii ne mu ngi ko sampu ci géej gi ñii ne mu ko sampu ci jéeri ji ñii ne nanga waaye loolu lépp ay riwaayaat la yoo xam ne daanaka boo ko toppee du la jox lu leer waaye li am te wér mooy que ne nguuram dafay dox ànd ak sawara ndax ci la ko yàlla tëgg looloo tax saay bu lay dugal dara dana ko dugal jaare la ko ci maanaam ngelaw mu dugg la mu jaar ci sa xol wala mu jaar ci sa xel wala lu mu doon yàlla may na ko mu am application yoo xam ne dafay mu a communiquer nit ki ba jël xolam bi tàbbal ko ci lu neexul yàlla wala mu jël bëtam tàbbal ko ci lu neexul yàlla wala mu jël noppam tàbbal ko ci lu neexul yàlla kàttan boobu yàlla jox na ko muy suuta boo xam ne jox na ko waaye amul spécial fu ñu la mën a wax ne dëkk bii la nekk masalan fa la samp baaxam wala fa la samp séesam bi ci seen maarifatu billahi bi ngeen xam amut fenn foo ñu mën a wax ne fii la nguuru iblis nekk yii mooy élément iblis nii lay doxale ci baatin euh, nguur ak iblis mu ngi koy samp ci nafsu nafsu mooy bakkan bi ndax boo xoolee euh, li ñu tudde ak nafsu balaa ñuy continuer lan mooy nafsu ok nafsu euh, benn élément la ci doomu aadama suñu borom dafa bind doomu aadama ci ay éléments. zahir wala ñu ci baatin pour ma dégg tontu bi. waaw nafsu buñ ko waxee maanaam ci firi saahir bi mooy nekku doomu aadama gi nga xam ne dafa tënku ci masalan boppam majaasu boppam nga xam ne yàlla daf koo bind bayee ko boppam loolu ngay dégg ne yàlla bi mu bindee nafsu daf koo wax ne ko eh, daf ko daf koo daf koo def lu nekk ne ko yow la kan mu ne ko man la bakkan mu ne ko man may kan mu ne ko yow la yàlla olamaa yi ñu ne bi ko yàlla mosalee xiif ay fan ne ko yow la kan mu ne ko man maay jaam bu xeebu bi mu ne ko man la kan mu ne ko yaay buur bu mag bi loolu la olamaa yi di wax ne nafsu ñemewut xiif nafsu élément la ni xol nekkee élément ni ruuxu nekkee élément ni sirru nekkee élément ni jëmmu nekkee élément noonu la nafsu nekke élément nafsu boobu nag olamaa yi danañ ko tuddee ruuxu danañ ko tuddee xalbu lu tax mooy dafa am communication bu dox seen diggante ba ñaare ku amul ràññee ci yàlla doo leen mun a séparer mooy lan moo tax boo demee ci bàyyi dafay jàngale na an nafsu war ruuxu wal aqlu asma al mutaradifa tur la yoo xam ne léeg-léeg dañuy toggante waaye bi ci gën a suufee mooy fi iblis nga xam ne foofu la iblis samp ak dooleem foofu la iblis di samp ay poyem ci nit ki mooy xelaat bi nga xam ne dafay yóbbu nit ki ci lu bon mooy nasul amaarate bi suuy yenentu yàlla yusuf alayhi salaam bi ko ndaw si sàkkoo eh, boole ko ak boroom këram ñu bëgg koo jàpp wax na ne mbir mi du moom waaye nag daf ne wamaa ubbari un nafs duma setal bakkan bi ndax inna nafsa la amaaratum bi suu kon a nafsul amaarate bi suu mooy première bakkan bi nga xam ne sëriñ bi daf koo soxla pour rawantel ko ki iblis ci bakkan booba iblis bu toogee ci bakkan boobu moo lay digal njaalo moo lay digal sàcc moo lay digal jëf ju bon moo lay weddiloo sax yàlla maanaam nga gëm yàlla ba mu mu weddiloo la yàlla parce que daf lay jox ay argument yu leer que ne yàlla du dëgg ba weddiloo la ko loolu la ñuy tuddee annafsul amaaratu bi suu'i su dawee tuuti nag bakkan boobu bu simmeekoo iblis day rocceeku communication bi mu doon am dootu ko amati nga yegg ci li ñu tuddee a nafsu allawaama muy bakkan bi dafay commencé yedd Ahmed Cissé lu tax nga def lii waroo def lii Ahmed Cissé en tant que dégg nga sëtu àndala buri yow sa maam mooy nangam sa maam mooy nangam nga commencé di am kersa loolu moo lay yóbbu nafsul mulhim fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga commencé xam que ne lu baax lii war na ma lii waruma booba seytaane rekki na lépp luy masalan sultaam muy doole bi mu amoon ci nafsu boobu nafsu bi raw na ko ba ba ngay egg ci nafsu mutmainna ci yàlla di waxee ne yaa ayatu nafs yaa ayatu an nafs al mutmainna irjii ila rabbiki raadiyatan mardiyatan waaye nag fa duxuli fi ibadi wa duxulil janna nga yegg ci nafsu mutmainna yegg ci nafsu radia yegg ci nafsu mardiya doog a yegg nag ci nafsu kamal boo yeggee foofu nag su boobaa saytaane amatul yow ci cër loolu la yàlla di wax ci alquran ne amoo benn cër yow saytaane ci suma jaam ñi nga xam ne man maa leen tànnal suma bopp nguuru seytaane ci baatin ci ci ci nafsu doomu aadama la nekk lan mooy nafsu ci baatin nafsu ci baatin élément la xam nga am na loo xam ne parce que nit du leen teg ci baaram li ma li ma tontu dafa mel ni ruux ak xol ak nafsu yëpp benn la te man ci suma réer gi ma réer bëgg nga gindi ma dama jàpp ne benn bu ci nekk du moroom ak moroomam ok xam nga jullit bi Ahmed Cissé mi gëmoon Baye Niass démb. Mhm. maanaam doon taalibe Baye nekk taalibe ak Ahmed Cissé mi dem ba mu yàgg mu doon muqaddam ak mhm. Ahmed Cissé mi nga xam ne xëy na weddi Baye Niass weddi alquran ji weddi diina ji ñëw toog est-ce que Ahmed Cissé yooyu am na uute. waaw. lan mooy différence bi. bi mu nekkee taalibe. boobu taalibi moo fa nekk ñu koy digal muy def ñu koy tere muy bàyyi bi mu nekkee mu xadam am na ndigal bi mu weddee bàyyi suur na yëfi bàyyi jaan léegi nag bakkan bi mu nekkee bakkan mooy bi nga xamee ne seytaane dafa am doole ci moom di ko digal lu baax lu bon mu def dafay gis ne dama cee tollu dama koy def toll ci def ko aayut romb ko paase ko lañu war a def toll ci dooleem toll ci nangam bi seytaane amee naf sulta ci moom la nekk nafsu bi mu demee ba nekk xal bu ci moom seytaane amatul benn cër ci moom parce que xal bu allaahu la bi mu nekkee ba demee ba nekk ruuxu seytaane duutul ko jegeete sax ndax su boobaa communication bi muy am ak yàlla jege na jege goo xam ne benn tëjli rek moo dox ci diggante bi mu àgg ci sirru moo tax waxkat ba doon subhaana law tannasala la kaana sirran wa ruuxan jóge ci sirru ñëw ci ruuxu ñëw ci àqlu wa qalban fi mahabbatikum taqiibu waaye nafs bi moom mooy bi ci iblis amee amee amee amee sulta mooy dooleem di ko doxal ni ko neexee loolu mooy différence bi waaye du luñ la mën a cité lii lii lii lii. kon daal su ma la déggee. Mhm. nafs su yéesee nafsu la su demee tuuti xol la su màggee tuuti ruuxu la waaye amul ci benn jamono lii di nafsu lii di xol lii di loolu amul. waaw bu dee ci wàllu baatin amul. bu dee ci wàllu baatin loolu amut bu dee ci saaxir nafsu bi mooy li nga xam ne moo aju ci jëmm ji élément yi koy jëfandikoo ci wàllu saaxir ku ne xam ne ne bakkan mooy bëgg bakkan mooy bañ bakkan mooy sib bakkan mooy mooy séexlu dara bakkan mooy nangam waaye bu dee ci wàllu baatin bakkan ak ruuxu ak xol maggaay la comme ni nga xamee ne ni nga ko waxee Ahmed Cissé bi mu nekkee taalibe Ahmed Cissé évolué na ba nekk muqaddam Ahmed Cissé dem na ba mu yàgg sax amaana mu weddi yàlla far weddi xaale Baye Niass weddi waale nangam yooyu yëpp bokk te Ahmed Cissé bii ma jàkkaarloot man bokkut ak Ahmed Cissé bi ma xamoon barki démb mu doon koo xam ne muqaddamu Cheikh Ibrahima Niass la di jox ay nit wird bokkut ak Ahmed Cissé bi ma xamoon di ko gis masalan nga xam ne ku ko dégg ci xam-xam nga koy dégg ku ko dégg ci lu baax nga koy dégg bokkut ak Ahmed Cissé bi ma jàkkal te pourtant ñi xamut dañuy foog ne même Ahmed Cissé la kon uute bi kulli yawmin huwa fii sa'nin donc diggante nafsu ruuxu ak qalbu ak xaqlu ak sirru noonu la demee. bi may nekk ci seen diine ji ngeen tuddee lislaam yéen da ngeen mhm. jàngale ne yàlla mu ngi toog ci arasam gi. waaw ah. te aras mu ngi ci kaw. ci kaw asamaan yëpp foofu la aras nekk. dégg-dégg boobu noo ma koy layalee. ba man ma mën a comprendre loolu dëgg la parce que man gëw ma ko. yàllaa ngi toog ci xarasam loolu ñu xamut ñoo koy wax maanaam jël li ñuy tuddee toog askanee ko yàlla ndax lañuy askanee yàlla mu nekk ak toogaay ni nga xam ne noonu la ko ibnu taymiya defee woon bi muy bi muy saraxa maanaam xadisu nusul bi bay yàlla di wax ne dina wàcc ba ci asamaan bu njëkk moo wàcc ci minbar bi di wàcc ba ci suuf mu ne yàlla dafay wàcc comme ni ma wàccee nii loolu nekk loo xam ne boroom xam-xam yi ko jam yëpp ci pas-pasam dañoo wax ne pas-pas boobu baaxut parce que lu tax mooy tasbiix la ba pare nag pas-pas la boo xam ne tajsiim la mooy dafa jëmmal yàlla ci jëmm joo xam ne masalan mel na ni moom niroo woon yàlla ak boppam te yàlla dafa wax ci alquran ne laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiun basir kon yàlla ngi toog ca kaw xarasam loolu kenn du ko wax baaxut du firi mu baax istawa istawa alal arshi la wax baatu istiwaa u nag ak yemoo lay firi al istiwaa u ak yemoo lay firi mooy maanaam loo maanaam mbir moo masalan boo ne Ahmed Cissé ngi toog ci kaw séesam bi yow ci sa sées bi nga toog yàlla doo wax ne mu ngi toog ci kaw séesam bi dañ naan istawa alal arshi maanaam emoo na ci arsh gi imam Malik nag dafa waxoon lu simple nitu saahir yépp dañoo daw tënku ci mooy al istiwaau maalum wal kayfiyatu majhul wa suaalu anhu bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaala fi benn waaye ñëw ci darsum rek laaj ko comme ni ko laajee nii ne ko istawa naka la yàlla toogee ci arasam gi imaam Malik daal di tëj téere ba na ko al istiwa maalum istiwa mooy yàlla nga emoo ca arasam nga loolu ñun ñoo xam ne wal kayfiyatu majhul nu ko yàlla defee loolu xamuñu wa su'aala anhu bidaa laaj ko bidaa la kenn mosu koo laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa kulli bidaatin dalaala ba pare ne axriju haata rajul anni génne leen ko ci man gaa yi génnee ko kon nitu sariya moom lañ ci jàpp rek mooy al istiwaau maalumun wal kayfiyatu majhul wa su'aala anhu bidaa maanaam laajte bi liñ ci mën a jàpp rek mooy du luñ war a laajte neen xamuñ ko xamuñ ko ah war nañ koo laajte parce que. maanaam xaras laaj ko yow man mi xamut laaj la ko. loo may tontu yàlla nu mu nekkee ci arasam aras mooy lan nu mu fa toogee loo may convaincre pour ma gëm ko ndax wax ji dafa rëy ak man man gëwuma loolu. Euh, mbindeef la aras mbindeef la ci mbindeef yàlla yi suñ borom jàngal nañu ko bu dee dañuy dellu ci téere yi borom xam-xam yu bari décrire nañ ñu xaras ne mbindeef la ci mbindeefi yàlla yi boo xam ne maanaam. dégg nga gën naa yaatu asamaan ak suuf gën naa yaatu lépp waaye dégg-dégg lislaam lu ci bari def du tënku ci xelam doomu aadama ndax doomu aadama xelaatam dañ ko limité te yàlla du lu limité wu loolu moo tax doomu aadama xelaatam dañ ko limité ndax buñ ne asamaan wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal ardi kursi yu yàlla gi ëpp na asamaan ak suuf te yow jàpp nga ne lu ëpp asamaan ak suuf amul yow say bët ak sa xalaat mun ta feek asamaan ak suuf doo mun a am dégg-dégg boobu doo ko mun a xam kon nag al istiwa u maalum mooy xaras mbindeef la ci mbindeef yàlla yi suñ borom moo wax ne yemoo na ca kaw xarasam nga bu dee ci ñun nag man soo ma ko laajoon dama la naan mooy xolu doomu aadama bi istawa alal arshi mooy xalbul insaan xalbu boobu lu tax ma ne la mooy xalbu bi boo demee ci xadis yenentu bi wax na ne maa wasi ani samawaati wama wasi ani ardi man yàlla asamaan bi xajuma ci xajuma ci sama suusi waaye nag wasi ani xalbul abdi al mumin xolob jaam bi ma gëm xaj naa ci kon istawa alal arshi al arsu rahman mooy kolu doomu aadama bi yàlla ngi ci xolu doomu aadama bi ci la yemoon te it boo xoolee xalbu baatu xalbu soo ko xoolee xaaf na ak laam ak ba 132 la lay dox boo ko divisé par deux mu jox la ñaari allahu soo xoolee ixlaas bi ñu wax ne mooy dantité bi yàlla ci alquran ñaari allahu nga may fekk qul huwa allahu ahadun allahu dootoo ko gis ba mu jeex samat lam yalid walam yulat walam yakun lahu kufaan ahad kon xarsu bi moom mooy xol bi istiwa bi mooy ni ci yàlla waxe ci hadis ne xajuma ci asamaanu juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar waaye xaj naa ci xolab jaam bi ma gëm man loolu laa la ci mën a tontu. sa tontu bi leerut ma. parce que convaincre loo léegi ci ci seen marifa bi ngeen di woote yéen taalibi Baay yi wax ne da ngeen xam yàlla su ma la laajaatee laaj bi di ma ci mën a tontu ci marifa waaw mooy li ma la wax boo ma laajee laaj bi ci marifa mooy xolu doomu aadama bi xarsu xarsu rahmaan boo demee ci boo demee ci boo demee ci Baay bi muy jàngalee xaras ak yàlla gi def na moom mooy xolu doomu aadama léegi nag yow noo déggee mu des ci yow noo déggee xol est-ce que yow da ngaa déggee xol benn xëtër bu nekk ci ci biir doomu aadama rek ñu tuddee ko xol wala lan yow mi xam te man ma weddi Baay Ñas weddi faydu ba weddi tarixa weddi diina lislaam yow yaa may xamal su ko defee ma xam ne man li tax ma weddi du dëgg ma dellusiwaat mais ni nga ma tontu moo tax ma ne la xalbu mooy allahu xalbu mooy allah xalbu nu mu nekkee allahu parce que allahu la jaamoo jaamu xalbu di parti ci jëmmi doomu aadama nga ne ma xalbu mooy allahu man munuma koo dégg noo ma koy leerale ok xam nga lislaam du tënku yow ci sa dégg-dégg lislaam li muy tënk mooy ci li am masalan tey buñ ne xalbu mooy allahu ñu ne la xalbu mooy mooy xaras yàlla gi maanaam xaras boobu ñu tuddee na moom mooy xol bi dama la indil xadis dama la yàlla dafa wax ne ci alquran wasi ak kursiyuhu samawaati wal ardi du loolu leer na moo ëpp asamaan ak suuf ma ne la yàlla moo wax ci hadiisu kursi yi ne maa wasi ani samaai samawaati wala samaai wala wasi ani ardi man xajuma ci suma asamaan si xajuma ci suuf si walakin wasi ani qalbul mu'min xaj naa ci kolog doomu aadama kon bu ñu ne xalbu bi moom moy xaraf bi loolu leer na di non man suma ma réer man suma réer mayut ma mu leer ci man parce que xol xol laa ci xam ci nit lay ne léegi aras nekkul ci nit yaa ma ne aras mbindeef la nit mbindeef la léegi nan la xol nan la xol nekkee yàlla yaa ne xol ndax xol du mbindeef xol mbindeef la kay ok kon bu ñu nee ne aras mbindeef la ne la xol aras mooy xol nga ne xol mbindeef la aras mbindeef la yow yaa leen xaajale yow yaa ma waxoon ne lu ne dafa am tur bi ma la laajee seytaane aras nga tuddee ko aras xalbu nga tuddee ko kon ñaar am na ñaar xew du benn maa waxaat na la al la waxaat na la nafsu ak ruuxu ak xalbu ak aqlu yépp al asma mutaraadifa la maanaam tur yu toggalante la mun naa firi bii mun naa firi bii mun naa firi ok léegi kon yàlla yàlla nu si alquran la wax ne moo moo toog ci aras wala lan moo wax ne yàlla ci aras la toog. alquran moo istawa alal la istawa alal léegi fan la waxee ci ci ci alquran ne man maa toog ci maa ngi ci biir xoli jaam bi. waaw xam nga moo wax ci hadisu qudsi ñun ñun dañuy tënku ci alquran ak hadis. masalan dafa am lu ñu tuddee hadisu qudsi dafa am ñetti mbir yu am dafa am lu ñu tuddee alquran am lu ñu tuddee hadisu qudsi am lu ñu tuddee hadisu sarif mooy hadisu hadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam hadisul hmm. pour alquran mooy lu yàlla wax yenentu amul ci madxal amul ci maxraj hadisul qudsi mooy lu jógee ci yenentu yàlla jaar ci jibril waxloo ko yenentu bi alayhi salaatu wasalaam ci làmmeñam boobu yenentu am na ci madxal waaye amul ci maxraj xadis bi nga xam ne mooy xadisu yi mooy xadisu sarif yi ñu xam xadis yooyu dafay tënku ci yenentu bi imma mu nekk xadis boo xam ne lii xawliyan lay doon wala mu nekk fiiliyan wala mu nekk xadis boo xam ne comme ni ñu ko xamee ndax nit sunna di doxee noonu la mbir mi doxee ndax sunna dafa am sunna taqririya am li ñu tuddee sunna xawliya am li ñu tuddee sunna fiiliya moo tax ñu ne xadis dafay tënkuwaat ci mel loolu xadisu qudsi yu nag kenn du ko jullee waaye hadisu qudsi moom ak alquran ñoo em ci degere wax bu jógee ci yàlla uute bi mooy bii duñ ko jaamoo yàlla waaye nag bii yàllaa ko wax ndax yenentu yàlla ma wax ci alquran wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa kon lum ne yàllaa ma ko wax rek lii la te yàlla moo ne maa wasi ani samaa yi asamaan si attanuma xajuma ci wala ardi suuf si xajuma ci walakin wasi ani qalbu abdil mu'min xolab jaam bu gëm xaj naa ci kon xolab jaam bu gëm yow yaa ko mun a tënk waaye man mënuma koo tënk soo ma laajoon xol nu mu toll man mënumaa xam xol nu toll ndax imaginel yow yow ci sa jëmmi bopp. xam nga man li mhm. problème boobu parce que ñun xeefeer yi dinañu comprendre ne. Mhm. architecte bi defar building bi gën a gudd Ndakaar laataa muy tabax building bi. building ci biir xelam mi. waaw. na xol Mhm. mais bi mu yeggee ci jëf tabax na ko ba moom mu xaj ci building bi. waaw aw ma problème boobu loolu du suma question mais question bi mooy nan la yàlla toogee aras. li mooy suma question boo xamee boo amut boo amut problème ci question boobu doo am problème ci question bi nga laaj c'est-à-dire que yow yaa defut mu xaarana rek waaye boo defee mu xaarana yow di nga xam ne li ma la tontu dégg nga ko ndax architecte bi nga xam ne dafa tabax bâtiment bi bâtiment bi toll nii bâtiment boobu xajut ci boppam doomu aadama. waaye xoolal bâtiment boobu photocopier la bu génnee ci xelam mi gis nga photocopier boo génnee ci xelam mi tëbbuwaay ba mu ngi génnee ci biir xolam bi tëbbuwaay boobu nag fa mu génnee ci xol bi yàlla moo bind doomu aadama mun a bind yàlla mooy amal doomu aadama mun a amal yàlla mooy jëf doomu aadama mun a jëf moo tax sax dañ lay wax na la bokk na ci lii li lay may nga am egg ci fi nga jëm mooy nga dem ba gis ne yow amula jëfoo waxoo yàllaay jëf yàllaay wax ndax lu mu ci mën a doon rek yàlla tuddee na ko boppam inna laa samiun yàlla mooy dégg basirun yàlla mooy gis mu mutakallimun yàlla mooy wax xayaatun yàlla mooy dund qudratun yàllaa ko moom du mbooleem yi nga xam ne yow mun nga koo wax yow si sa tey lépp yàlla ne la maa ko moom man yàlla maa moom dégg man yàlla maa moom gis man yàlla maa moom lépp te yow yaa ngi am sa dégg ak sa gis pour yow xam nga xam nga seen xaddis yooyu nga wax te man gëmatuma xaddis am na ci xaddis bu wax ne seytaane nguuram mu ci géej gi bët bu set dina yónni juróom-ñaari fukki njunni junni mooy mil njunni mooy million ci ay doomam ngir ñu dem tàqale jaam ñi ak mbaax ñu bon ñu mel ni man mu yombalal xadis foo jëlee xadis boobu ci seen xadis yi rek ok bul na ci seen xadis yi xam nga xadis dafa bëri ay façon dafa am xadis bu ñuy tuddee xadisun saxiix boobu du uute ak alquran benn yoon am na lu ñu tuddee xadisun xasan xasanun saxiixun li nafsihi dafa am saxiixun li xayri dafa am xasanun li nafsihi dafa am xasanun li xayri dafa am daif dafa am addisu maanaam xarib dafa am addisu maxtu euh, nu mu tuddati ci ci gàttal addisu munkar dafa am dégg nga xadis yooyu yëpp xeetu xadis la yow mun ngaa fekk xadis boo xam ne munkar la mooy munkarul xadis muy hadis boo xam ne tekkiwul dara ab wax la joo xam ne dafa mel ni Ahmed Cissé ne déggee naa ci yenant bi moom a toog mu ne nangam ak nangam ak nangam nit jàpp loola ménguwut ak alquran ménguwut dañ koy sànni ala ardil ayat donc loolu kenn du ko jël waaye bu dee hadis bu wér la dafay dëppoo ak alquran te bu dee alquran nga ndax gëm nga li yàlla wax ne wa fi anfusikum afala tubsirun loolu lu muy tekki ci wolof mooy xool leen ci seen bopp masalan hmm. yow yàlla bi ngay wër yow ci sa bopp nga koy gisee atatlubu layla wa hiya fiika tajallati wa taxsibuha xayran wa xayruka laysati donc yaa ngi ut layla yàlla la ci jublu te mu ngi fës ci yow nga yaakaar ko leneenta leneen lu dul yow nekku fi donc wa fi anfusikum si tubsirun bu yàlla waxee nag xool leen ci seen bopp ku xam sa bopp xam sa borom yow boo gisee sa bopp rek gis yàlla boo xamee sa bopp rek xam yàlla mais nag tant que gisoo sa bopp mënoo gis yàlla tànk que xamoo sa bopp mënoo xam yàlla. Euh, hadis hadis bi mu ngi ci saxiixul yi ci cinquante quatrième bi mooy bi ma la wax ne mu ne seytaane mu ne. Mhm. Euh, dafay dafay yónni ay doomam ci nit ñi ay njab mooy seyaatin yi nga wax ñuy yàqal doomi yaadama yi. waaw mais est-ce que nee na ci hadis bi ne seytaane ngi ci géej ga loolu mu ci hadis bi an jaabir radiyallahu anhu qaala qaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. inna iblisa yad'u arshihi ala almaai suma yab'asu sharayaahu fa adnaahu minhu manzilatan a'zamuhum fitnatun ok léegi alal ma yi bi yow moom nga fi dee moom nga fi dee alal bahri. Hmm? alal maa yi bi moom nga fi dee alal bahri. waa maa yi mooy ndox ndox mi mooy géej gi rek. waaw waaye ndox du géej. waaye ci ndox mi la ne. nga dafa am dafa am loolu il faut nga xam ne dafa am ñeenti élément yu am. mun naa la yónnee xaddis si seen xaddis la bokk man moom gaw ma xaddis waaye. waaw waaye waaye déglul même xaddis bi yow ni nga ko ni nga traduire xaddis bi balaa ñoo dem ci xaddis bi wér na wala wéru ni nga traduire xaddis bi moo baaxut. parce que maanaam yaddaxu kursi woo alal maa yi loolu tegtaluwut alal bahar yi ci géej gi la nekk muy benn dafa am mm-hmm. élément bu ñuy tuddee maa u am li ñuy tuddee xawaa u am li ñuy tuddee am li ñuy tuddee naari yu gis nga ñett yi moo am xam nga wax naa la léegi ne la iblis nguuram mu ngi ko samp ci sawara nguuram ci sawara la nekk mais mbooleem élément yii yëpp iblis daf cee am maanaam saytara suñ borom moo ko jox jox na ko saytara ci ngelaw li jox na ko saytara ci suuf. baal ma balaa ñuy dem ci yooyu dinaa ci ñëw yónnee naa la hadis bi seen hadis la saxiixul Buxaari yónnee naa la référence bi ak yëpp li hadis yooyu nga may layal ci laa lay yebalaat man jàng man. gëw léegi léegi moo bi. moo tax ma moo tax bi. hadis bi ma la yónnee nii xaw ma nag dinga nga am accès ci sa WhatsApp. ok xaaral. Buba Alima, how are you doing? Thank you for joining the live. Sang Barhamu Ndiaye wax naa ak moom xëy na dina ñëw ñu waxtaan man moom ma dara ku ma mën a convaincre ba ma gëm rek nit ñi gëm maa ngi leen di xaar Ndiaye moom tay moom fay moom gis nga xaddis bi léegi gis naa gis naa xaddis bi waa léegi man kon jànguma xaw ma. waaw nga xaal ma téléphone bi. hadis bi bi waxut ne waxut ne mu ngi ci kaw géej. xam nga faaw nga déglu. ñàkk xam rek. li ma ok parce que euh, téléphone bi mu nekk moom lay laay fe loolu moo tax. Hmm. léegi xaaral am na ku ma ko yónnee pour mu yónnee waal ma ko mais hadis bi. waxut ne se ok waaw kay léegi an jaabir radiallahu anhu qaala qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam inna iblisa yadau arsahu ala almaai summa yabasu sarayaahu dégg nga kon baatu sarayaahu mooy firi ay mbooloo yi muy ebal mu mel ni koo xam ne dafay ebal ay nit di leen sant su ko defee dégg nga lu ci tegee fa azinahum minhu man faadnaahum minhum mansilatan ahsamahum dégg nga fitnatan yajiu ahaduhum fa yaqulu faalta kaza wa kaza fa yaqulu maa sanata maa sanatu cheyan qaala suma yiji ahaduhum fa yaqul maa taraktuhu hatta dégg nga faraxtu baynahu wa bayna wa bayna mraatihi dégg nga qaala dégg nga fa yudni minhu wa yaqulu naam anta qaala al ahmas dégg nga qaala euh, fa yaltasimu sahihun rawahu muslim léegi xadis bi mooy li ma la wax yaddaxu arsuhu alal ma mu ngi teg masalan xarasam gi muy séesam bi mu ko teg ci kaw ndox baat mu ko teg ci kaw ndox ndox mooy lan maanaam soo xamee lan mooy ndox continuel continuel firi xadis ba pare nga ñëw ci sa commentaire yow ok dafa wax ne naka iblis mm-hmm. yaddaxu dana teg arsuhu séesam bi alal ma mu ko teg ci kaw ndox mm-hmm. dana teg séesam ci kaw ndox summa yëji euh, dégg nga summa yabaasu mu yebal sarayaahu ay ndawam fa addanahum minhu manzilatan ki gën a gàtt ci ñoom ki gën a tuuti ci ñoom daraja ahsamuhum fitnatan moo ëpp ci ñoom musiba masalan ki ngay xeet ne dafa ndaw ci martaba bu suufee moo ëpp fitna xam nga élément am yi dafa bari jigéen ci élément am yi gën a ndaw la kon ba pare kon xadis ba pare d'accord yajiu ahadahum mu ne kenn ci ñoom dana ñëw fa yaqulu mu dal di wax ne faxaltu kaza def naa nangam wa kaza def naa nangam ak nangam fa yaqulu ma sanaata shay'an boo ñëwee mun laax ah, yow defoo dara maanaam da ngay ñëw ne ko def naa nangam ak nangam mun a laax ah, yow defoo dara dégg nga qaala summa yaji ahaduhum fa yaqul maa taraktuhu hatta faraktu baynahu dégg nga wa bayna mraati am koo xam da ngay ñëw ah waa ji de bàyyiwuma ko ndara bu tàqale naa ko ak jabaram dégg nga fa yaqulu qaala mu daal di wax nag ne dégg nga fa yudne minhu mu dal di jege ko wa yaqulu naam anta waaw kay ni'ma anta yow ku baax nga ndax li ma la santoon def nga ko qaala al araahu mu wax ne al ahmad araahu maanaam lii addis bi la qaala fal yaltasimhu masalan dafa am beneen nafsu boo xam ne moom lay junji fal yaltasimhu mooy na nga ak moom saxiixul di saxiix maanaam addis bi wér na la wax rawaahu muslim muslim moo sole addis bi loolu la wax ci yaxu addis bi uh-huh. léegi nag ci addis bii mu wax amut lu ciy tegtale ne ci kaw géej la nekk nee naa la suñ borom dafa am ñeenti élément boo demee ci sufiyanke yu mag yi maanaam philosophe yu mag yi dañ lay wax ne yàlla ñeent yii la dafa am yàllaay ndox yàllaay sawara yàllaay ngelaw ak yàllaay suuf ñoom dañoo jàpp ne lii mooy cosaan yàlla am na benn téere bu ñu tuddee xayraana nga xam ne waa ji ko bind dafa tënku woon ci yoonu philosophe ba baayam génnee ko dàq ko mu dem ci école ba muy jàngee ñu dàq ko mu dem ci àll bi ba dajeeg benn mag mu di ko jàngal bokk na ci lim gëmoon mooy pas-pas bii mooy yàlla safara la ndox la ngelaw la suuf la doomu aadama ci boppam ñeenti élément yooyu lañ ko mooñaale Ahmed Cissé ngelaw la Ahmed Cissé ngelaw safara la Ahmed Cissé ndox la Ahmed Cissé suuf la Ahmed Cissé ñeenti yii dajee ci moom am na bu ci gën a not ci moom boo demee ci ñiy yëngatu ci wàllu lasara dañ lay wax ne diw mi bi ñu xoolee turam tura biir la. sëñ bi wàcc nga suma question bi lu bari yaa ngi expliqué. Ah, xam-xam wàcc yaa ngi expliqué xam yu neex yoo xam ne bëgg naa cee ñëw mais question bi ak lii du benn maanaam dama dama la bëgg wan rek ne yéen xaar xaar yéen seen hadis yi ngeen gëm taman gëmu ko. nguuri iblis mu ngi ci kaw ndox. man ñàkk xam moo mu tuddee ko géej nga ne ma baxru ak maa du benn. waa ndox mi fan la ak lan la nu mu ndoxee. dimbale ma ci loolu boobu point bu. ok waaw xam nga moom la dama xam nga da ngay da ngay tontu bi mu simple ci yow dama la ne la. Mhm. Iblis bi nga ma laajee na ma Iblis fan la samp nguuram gi xam nga fi mu def xarasam ak nguuram gi ni mu koy doxalee nguuram gi ci sawara ci la nguur gi ci sawara lay jeexee ci la commencé ci la jeexee wax naa la na wax na ne xalaxta nii min neerin gis nga danga maa bind ci sawara loolu alquran la. Mhm. léegi kon nguuram ci sawara la la. léegi nag séesam bi mu ko teg ci kaw ndox léegi élément yi doomu xam nga élément yi doomu aadama bi doomu aadama ci lan la sosoo du ci ndox. ah man de xaw xawma ci dara de. waaye dégg naa waaye xam nga ne doomu aadama ah Ahmed xam nga ne doomu aadama ci man yi la sosoo yàlla moo ci alquran ne. loolu moom lépp lu ma bind ma jaare ci ndox. non loolu laa gëm man nga dama gëm ne man ci sperme laa jógee mais ay suufa ak yi. nga waaw kay ndox la wala du ndox. ndox la kay. léegi da gis benn da maanaam gisuloo ne maanaam doole ji iblis gën a am nga xam ne mun na cee tàqale àdduna bi tey mu ci kaw mu ngi ci sperme gisoo loolu li tax ñu ragal jigéen yëpp lan la sperme góor gi nga xam ne dafay toog ba diggu guddi mu daangaan dem di fëgg jabari jàmbur ngeen ndox mu génn kese la wala xamoo loolu xamaguma fi nga jëm maanaam waaw waaw mooy ndox bi c'est-à-dire yoon gi bu ko samp ci ndox bi bu ma wax ne da nga nekk ci ay pexe wax ma ne ndox mi iblis teg arasa bi mooy man yu loolu nga ma bëgg a wax fa nga jëm fa fa nga jëm waaw xam nga firin xam nga firin ci dégg xam nga bono xadis bi moom ci ndox rek la la wax wala yow yaa Sëriñ Njaay ban ndox la waa ndox daal la la wax dégg naa xadis bi waaye dama réer géej la nga demul géej ban ndox la nu ndox ndoxu. waaw man ci sama dégg-dégg xam nga man xam nga man su may firi hadis bi. Mhm. duma ko firee géej gii nii du ma ko firee ndox dama na doomu aadama dañ koo bind ci ndox te ndox bi ñu bind doomu aadama xaqiqatan li tudd ndox ci moom loolu ci man yu la nekk maanaam ndox bi ak safara bi ak ngelaw bi ak suuf ji mooy li doomu aadama li na ci doomu ndox bi nag ci doomu aadama bi bi nga xam ne fa la seytaane góor mooy ndoxam ma niyu ok ndoxam mën ku tige ndax yow gëm nga ni. waaw góor mën na ñàkk am man niw te seytaane di soppandeku ci moom ndax góor mun naa ñàkk waaw waaw loolu day am léegi kooku noonu amul ndox mi nga wax yow li nga interpellé ndox kooku amu ko te seytaane maanaam déggoo wax ba tey dégguma fi sées bi fi sées bi nekk ak fa muy soppandekoo du benn dafay yeble ganaa xamoo tey Ahmed fi nga toog benn jigéen ngay di ko xool maanaam yow ci ndox mooma saay bu yëngatoo yëngatee li mu war a yëngat ci yow mu naan sa àndala buri googu maanaam kelaatam yooyu nga xam ne ñooy dem xalaat yooyu dana dox lu nekk mm-hmm. ni tàqale ko nag jabaram xam nga lu tax ñu tàqale ko dafa bett jabaram ak góor nit tàqale ko nag jëkkëram xam nga tax ñu tàqale ko daf ko bett ak jigéen mm-hmm. waaye ci lu simple ñu wax la doomu aadama ndox yu bari ñoo nekk ci moom waaye biir ndox yooyu yëpp ndox bi mu tënk mooy ndoxu man mooy aslul ndox yi aslul ma bi nga xam ne moo nekk ci doomu aadama boobu su manqué ci doomu aadama doom du am mos ngaa gis ko am doom te amul mandi. Mhm. déedéet. ndax dégg nga ko. Mhm. xam nga loolu mënut a nekk. kon diina ñun bu ñu indi dégg-dégg ne la lii dégg-dégg la lii nangam bu ñu yemoon ci li suñu borom wax rek dafay yem mooy que xajuma ci asamaan. xajuma ci suuf waaye xat naa ci xolog doomu aadama bi jeex na doomu aadama boobu xol boobu mooy lan suñ borom moo xam quantité xol bi ak qualité bi ak degré bi lan la waaye bu dee ci ñun aarifi mooy xolu doomu aadama ndox mi nga xam ne tey ndox doomu aadama dañ ko bind ci ndox bind ko ci safara bind ko ci ngelaw donc yii yëpp éléments yi dafa am ci jëmmi doomu aadama iblis nag nguuram mu ngi ko teg ci sawara dégg nga séesam mu ngi ci ndox élément ci ngelaw d'accord damay bàyyi foofu mu jàll waaye man si suma réer gi dara leerul suma bopp léegi beneen question bi ma la bëgg a laaj d'accord buur googu nekk sa ginnaaw gi mm-hmm. nekk sa ginnaaw noonu ngeen tuddee ko tur yu bari nag kii waaw waaw tur yi ngeen di tuddee bari na tëjal ma tëjal ma fenêtre yi baal maa nag suñ koñ bi dafa amoon làmbu xam naa waaw waaw ñun de ñu ngi ci làmb joo xam ne bëgg naa nga daane ma wala ma galgal la. <laughs> waa aca bu soobee yàlla doo ma daaneel yow kay dañ eh, góor googu sa waaw Maolana Cheikh. da wax ngeen ne moom rekk mooy xamle yàlla te ku jaarul ci buntam bi du xam yàlla man gëmuma loolu dama ko weddi. lu tax ma weddi ko. kan moo kan kan moo wax loolu. yéen yéen a koy wax yéen taalibe Baye. ah. yéen taalibe Baye yéenay wax loolu. yenn ci taalibe Baye ñooy wax loolu am na ñu xamoon yàlla njëkk Baye Niass di oote. léegi yow ci balaa may continuer question bi ci taalibe bàyyi yi ko gëm nga bokk wala gëmoo loolu. waaw xam nga maarifa gëwuma ko bokkuma ci ñu ko gëm. loolu leer na léegi suma question mooy. te sama ñàkk gëm gi dafa tënku ci waxu Baye Niass du man suma wax. non loolu leer na léegi suma laajte mooy lan mooy wane ne yéen taalibe bàyyi xam ngeen yàlla lu koy dëggal. ok maanaam awalan il faut ma leeralal la point bi pour xelaatu nit ñi doog a ñëw ci lan moo ñuy firndeel ne xam nañ yàlla. Mhm. xam nga maanaam ñu bari dañuy jàng bayti bi Baye Mbaye waxoon ci xasidaam bi euh, fala aarifun illa bi baabiya waaqifun udir wa usqi qawma turran bi faydati dañ koy jàng ñu ne kenn du xam yàlla dara jaaroo ci baay waaye illa fala aarifun illa bi baabiya waaqifun dafa am ñaari xaarif yu am Baye Niass moo ñu ko jàngal boo demee ci jawaahiru rasaayil dafa wax ne dafa am lu ñu tuddee al aarifu inda al qawmi al aarifu indal qawmi nag ñëpp ñu tuddoon ñu nekk ay aarif njëkk Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ci dégaro boobu lañ tolloon mooy ñu nekkoon ci xadamul uulaa xadamul uulaa mooy ku dem ba am fanaaw ci yàlla. sa wax ji sa wax ji dafa bari arab trop nan tey dégguñu arab de boobu mu ne wàññil arab yi. waaw xam nga nga ko wolof. xam waxtaan ci diina man du may man dinaa wax ci du may du tontu ci xalaat. damay tontu ci ay texte loolu moo tax wax ji foofu mu bëri ay arab parce que law la sanadu dégg nga la macha seen biir yu bari na de sa mbokk yooyu ñu ngi lay yàqal lu neex biir bi bari na ci biir waaye continue ok yaa yaa ngi may dégg léegi bu baax waaw abal ma écouteur bi xaaral ma jël écouteur bi abal ma écouteur bi su ma jëlee écouteur bi duñu ma dégg alo yaa ngi may dégg. waa bureau bi wàññeeku na dégg bi leer na macha allah Ndiaye. d'accord léegi euh, ñoo ñoo ngi ci lan sax. su ma laajte lan mooy dëggal ne yéen taalibe bàyyi. xam nañ yàlla ma ne la léegi dama lay tontu ci dama laa wax na la bokkuma ci ñi gëm ne maanaam ku ñëwut ci Baay Ñas rek demut ci bàyyi doo xam yàlla. ah jërëjëf waay nappoon leen ñu ak Baay xam la yàlla bàyyee xam la yàlla. <laughs> ok ah. Baye Niass radiyallahu anhu daf ñoo jàngal ci téeréem bi ñu tuddee Jawaahir Rasaa'il li ñu tuddee al aarifu indal qawmi maanaam qawmu bu ñu ko waxee mooy sufiyanke yi sufiyanke yi mooy ñi nga xam ne dañoo topp yoonu suufi yi ñoom lan lañ tuddee aarif ibnu arabi al atimi boo demee ci al fusuusul ikam indi na ci lu bari boo demee imaamu sibli yi indi na ci lu bari imaamu junaydi yi indi na ci bari hatta mansuuru xalaaj bi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa ñi ko tuddee seen bopp dañ koy jam lu bari dañoo wax ne ci aarif yi la bokkoon waaye ñoom seen irfaan gi ci lan la tënku mooy koo xam ne fanaa mooy baqaa um mooy fanaa loolu xam naa danañ ci ñëw loolu mooy aarifu indal qawmi Baay Ñas nag dafa wax ne wa amma ana fal aarifu indi man fanniya fi zaati maratan wa fi sifati maratayni dégg nga wa fi l ismi maratan aw maratayni wa asbata al wujuda bil xaqaiqi salaasa wa raahu aynan moom lii la tënk lii nag ku ñëw ci Baay doo ko xam parce que dafa ne man Baay Ñas al aarifu indi ku xam yàlla ci man mooy koo xam ne fanniya fi zaati maratan jeex na ci jëmmi yàlla ji benn yoon wa fanniya fi sifati maratayni mu jeex ci jëmmi ci meloo yàlla bi ñaari yoon wa fan ya ismi maratan mu jeex ci turwi benn yoon léegi nag wa asbatal wujuda mu saxal wujud bi yépp bil xaqaayiqi salaasa ci ñetti xaqaayiq yi mooy niñ ko xamee muy ahadiyatu ba ak muhammadiyatu ba ak ahmadiyatu ba waaye nag war wa raahu aynan mu gis ko muy benn jëmmu bàyyi ne ne kii mooy xaarif ci man kii nag képp ku taxawut ci bàyyi jaaroo ci buntam doo ko xam te boo nee xam nga yàlla ñu laal luy fannaa u fi zaati benn yoon ak lu tax jëmm ñu ciy jeex benn yoon luy fanaaw fi sifati ñaari yoon ak lu tax ñu ciy jaar ñaari yoon luy fanaaw fi fil ismi maratan lu tax ñu ciy jeex benn yoon wala ñaari yoon lan mooy jël wujjuut bi yëpp saxal ko ci xaqaayiq salaasa lan mooy nga jël ko mu nekk benn doo ko xam kon Baye waxut ne man rek maa fi xam le yàlla waaye nag xaarif ci moom képp ku ko bëgg doon ci buntam ngay taxaw doo ko xam boo fi jaar doo ko xam Baye wax na xaw ma lan ilaa baabi nangam arab yooyu Baye wax na loolu Baye mbay baay mbay Ñas Baye Mbaye Ñas du xam nga ko rakam dama ko daan dégg rek baay Baye Mbaye moo waxoon xasida ju joo xam ne maanaam xëy na lam doon dund ci xaal ak ci maqaama ak tolluwaaye la waxoon wax jooju wax na ci sax lu gën a rëy loolu ndax ana xaasimul maaruf fi ça veut dire que wax ji du waxi xaarif waxi xaal la rek waxi mbaj suub la rek déedéet déedéet yëg-yëg xam nga maanaam xaal al xaalu daata duum mais doomu mun a wax ne xaal ba doon dund nam doon ça veut dire que waxi mbaj la la kon dëgg la maanaam alaalu indal aarifina. waaw dafa am ñoo xam ne. kon wax ji dëgg la. waaw waaw wax ji dëgg la. waaw kon xam nga sawara xam nga sawara. xam nga sawara soo ko jegee tàngoor boobu di la jub di la lakk mun na laa lakk te doo teggi sa doo doo sa laalul sa yaram tàngoor bee la laal loolu mooy xaal tàngal boobu bu safara bi wàññeekoo dootoo ko yëgati mais xalu safara bi boo ko téye daf lay lakk parce que loolu maqaamale ci moom dañuy wax ne alaalu laa yu duumu. bi muy wax lii daf ko wax ci maqaamam sëriñam man maay ana qaasimil maaruf fi kulli baldatin man may séddale ci bépp réew dégg nga mu waxaat ne falaa aarifun illa bi baabiya waaqifun udiiru wa usqi qawma turran bi faydati kenn du nekk aarif te taxawoo ci suma buntu udiiru mooy maay windeel joxe kaasi wa usqi man may nandele xawma nit ñi turran bi faydati te Baay Mbay Ñas amul faydu faydu bi faydu Baye ñas la parce que moo waxoon ne wasal faydu abaani moom la Abdoulaye Wade Hadj waxoon na ko faydu bi Cheikh Tidiane waxoon dana feeñ ci yow. xaqiqatan laa majaasa dinaa ñëw yow xam nga. sa xam dafa bari ba. suñu yemee point bi da may jiitu di daw njaay. fu mu nekk waaw xam nga am na benn am na benn maqtaa bu ndaw bu ma dégg maa ngi nuyu passage Cheikh Assis Ndiaye. mu lay wax ne la kii wax ti ko teg ci xam-xam baat yi ñoo ko naan wax ma wax ma yaakaar naa yaa ngi ko fàttaliku ci seen biir. waaw waaw yoo yow xam naa masala ñoo na naan wax ma wax ma wax ma wax ma waaye léegi. <laughs> li ko waaw la su fekkee ne waaw. su fekkee ne Serigne Mbaye Niass. Mm-hmm. xaaral ma yokk si li ngeen ci yokk radiyallahu anhu moo wax lii ci maqaama sëriñam. Mm-hmm. kon wax ji moo ëpp doole bu ko sëriñ bi waxoon. lu tax mu mhm. ëpp ko doole mhm. mooy sëriñ bi baax na ba yéegal taalibe bi fu mu méritoowul mhm. taalibe bi xuus ci maqaama sëriñ bi gis ta sañ wax ndax sëriñ bi bu waxoon ci boppam bu demul ci bew ak rëy su ñàkkee ndigal du baax taalibe bi wax ko ci baabu mahabbati dëggal ne ku jaarul ci bunt bi sëriñam doo xam yàlla kon waxi sëriñ Mbay Ñas bi dëgg la dëgg goo xam ne dëgg gi moo ëpp doole bu ko bàyyi waxoon ci boppam ndax wax sa bopp arab yi ñu ne de lu siixlu la lu sibu la léegi nag wax jooju Baye Mbaye Niass wax ko den mhm. koy askanalee Baye à cent pour cent léegi yow nag yow mi fi nekk gëm Baye ba teg ko sa ginnaaw dama mhm. bëgg nga lay lay woo xam ne ci suma nopp bi man mi weddi Baye danaa ko gëm mooy lu tax ku jaarul ci bunta bàyyi doo xam yàlla wala yow it da nga ko weddi ni man jërëjëf xam nga wax ji dafay dafay bëri takkaraar xëy na li may wax ak masala yi da ci dut bàyyi xel waaye loolu tontu naa la ko bu yàgg wax ji bàyyi bàyyi mbay waxeewut ko parce que daf ko wax ci sëriñam su boobaa dafay wax ne maanaam buy wax du waxee ci làmmiñam moom bi muy waxee di leet dafa am lu ñu tuddee al lisaanul xaal lisaanu xaal nag maanaam duut ne xaal boobu nga dégg rek ñu jàngut dañuy foog ne bu ñu ne lisaanu xaal ñu ne borom ci xaal la ko waxee du màqaama lisaanu xaal mooy nga wax wax joo xam ne yow duuloo boroom waaye borom moom moo ko wax ci yow xam nga yenentu bi sallallahu alayhi xadara bi mu nekk Cheikhu Tidiane xadara bi mu nekk ak yàlla xadaraam bi ñetti ñii dañuy waxante maanaam yàlla dafay waxee ci làmmiñu yenentu yàlla dana waxee ci làmmiñu wilaayatu ni nga xamee ne waliyu bi dana waxee ci làmmiñu yàlla dana waxee ci làmmiñu yenentu ni nga xamee ne yenantu dana waxee ci làmmiñu yàlla dana waxee ci làmmiñu waliyu Baay Ñas nag ñetti làmmiñ yooyu yëpp dafay dajee ci moom Baay Mbay dafa wax wax ji moom moo ko wax waaye bi mu koy wax mu ngi ko wax lisaanu xaal la ko waxee waxu Baay Ñas la parce que première li tax may lay leeral la loolu mooy euh, fala aarifun illaa bi baabiya waaqifun uddiiru wa usqi xawma turan bi faydati Baay Mbay amut faydu faydu bi faydu Baay Ñas la kon loolu moo tax Baye ñas moo ko wax ne ko Baye Mbaye yaa wax lii mu ne ko Baye maa ko wax mu ne ko foo ko waxee mu ne ko ci sa maqaama laa ko waxee bàyyi na ko kon boole ko ci suma wax ji loolu moo indi ñu jël wax ji boole ko ci waxu waxu Baye Niass bi léegi nag li tax ma ne la falaa aarifun illaa bi baabi ya waaqifun man bokkuma ci ñi gëm ne ku ñëwut ci Baye rek xamoo yàlla loolu moom xam nga ànd nañ ci maag yow mm-hmm. Ahmed il faut nga déglu li may parce que yaa ngi may laajaat question yoo xam ne lay dégg waaw non dafa am euh, boo concentré woo ci leneen doo ma dégg non bi damay wax dara nga koy laajaat maa ngi lay dégg xam nga man nitu intérêt laa damay dem ci client yi su ma waxee numéro bi di leen jaay ànd laa bëri waaye wallaay maa ngi lay dégg <laughs> ok xam nga nee naa la Baye Niass njëkk Baye ñas di ñëw am na ñu bari ñu xam yàlla mm-hmm. aarifina billaahi wax nañ lu bari kaasiful ilbaas boo demee Baye def na ci buntu boo xam ne dana ci wax ñu bari ci ay xaarif ñoo xam ne dañ doon am xam-xam di wax waaye nag boo demee ci biir jawaahir sa dana wax ne waxat tatabaatu kalaama arbaabil maarifi man bàyyi topp naa waxu aarifina billaahi yi ñi nekkoon aarif njakk may ñëw waaye nag fekkuma leen lu dul ci ndëgg bu njëkk ba nee na ñoom egguñ ci ndëggu ñaareel ba egguñ ci ñetteel ba naka nag kon beneen budul ñaar ñaareel beeg ñetteel bi mooy ndëggub ñeenteel bi kon hmm. ñoom fañ yem yemukaay du yemukaay ba parce que maarifa dafa ay maratib xaarifina billaay dañoo rawante donc kon njëkk Baye Niass am am na ay xaarif parce que Seexu Tijaan kenn du wax ne xamut yàlla te kenn du wax ne ci Baye Niass la xamee yàlla dégg nga Ibnul Arabi kenn du wax ne xamut yàlla te duñu wax ne ci Baye Niass la xamee yàlla donc loolu buñ bañee fanati fanatisme dañuy wax li Baye Niass wax Baye njëkk muy indi ne maanaam euh, amma ana fal aarifu indi dafa indi aarifu indal qawmi ba noppi ne aarif ci nit ñi mooy nangam ñu ne waaw d'accord nañ mu ne waaye man aarif ci man léegi nag yow Ahmed Cissé sañ ngaa wax ne lii lii dëgëral góor lii dëgëral góor ci gaa ñi jaay ñu ne ah nga ne nangam dana ko dëgëral jinjar wala nangam d'accord waaye man Ahmed Cissé lii ma tuddee dëgëral góor ci man mooy sama ànd la buri gi amoo droit wax loolu. am nga ko am nga ci dura bàyyi Niass moom moo wax ne mu rabbin li la kullil aarifina man la yàlla tàggat ma yar aarif yi xaarifam yi ci bunta Baay Ñas képp koo xam ne bëgg ngaa nekk xaarif bi Baay wax mooy nga am fanaa u fi saati maratan jeex ci yàlla benn yoon jëmm ji jeex ci melaw yi ñaari yoon jeex ci tur wi benn yoon saxal wujjuut bi yépp ci xaqaayiq salaasa gis ko muy benn loolu ku dikkut ci Baay du ko xam Ahmed leer na mais léegi nag yow mun ngaa wax ne mënuloo wax ne tey ku ñëwut ci yow rek doo am àndala buri bu dee àndala buri li nga ko tuddee moom mooy mooy dimbale góor am na ñu koy am te te sa bos am na koo xam ne sax mun naa falsifier dem am na koo xam ne sa garab gi xëy na am na ci benn matière bu bokk ci ànd la te moom amul matière yëpp yow nga am matière yi ko gën a mat kon su la neexee est-ce que xam nga ne ni nga ko layee nii nit na cee taxaw weddi waxi baay maanaam da nga ubbi bunt bu dëggu ci weddi ko léegi léegi ban bunt laa ubbi léegi ah? weddi weddi ko ma wax la ne mënoo koo weddi ok dinaa ko def mais duma koy sawar a def danga ne hmm. ndax yow sañuloo ne sa ànd buri bii waaw sañ ngaa taxaw ne ku jaarul ci man doo taxawal parce que maay jaay ànd la buri waaw am naa ci droit waaw mais ma wax ko taxul mu doon dëgg ñeneen a ngi koddal te ñëwuñ ci man waaw ça veut dire kon bàyyi wax ko taxul wax ji dëggu ñeneen est-ce sa bos lañ naan est que ñoo sa bos lañ naan. xaw ma na dégg nga ma de. noo demane ne ñooñu ce que sa bos lañ naan. bàyyi waxut ne kenn bàyyi waxut ne bàyyi waxut ne kenn du xam yàlla. te ñëwoo ci man jubluwul ci ne illa ci arab illa illa la dégguma arab mais illa la utiliser illa. waaw falaa aarifun illa bi baabi ya waaqifun. illa boobu kay mooy lu dul bunt bi. waaw moo tax nag déglul al aarifu inda Cheikh Ibrahima kay. ku jaarul ci Cheikh Ibrahima doo ko xam loolu c'est très simple di Ahmed. d'accord xam yàlla gi Baye Niass di joxe. maanaam kon yow limité nga wax ji ci Baye rek mais donatul ci yàlla. non am na ñu xam yàlla te ñoom Baye Niass booba ñëwagut ci kaw suuf saahiran. ok Cheikhou Tidiane fu mu xamee yàlla. c'est bon. loolu la Cheikhou fu mu xamee yàlla. man jàpp naa ne Serigne Touba xam na yàlla fu mu xamee yàlla est-ce que dafa ñëw sukk ci doon Baye Niass. non leer na. ok wax ji mooy. bàyyi dafa wax ne xaarif ci man bàyyi ñas mooy ku jeex ci yàlla benn yoon jeex ci jëmm jeex ci jëmm ji benn yoon jeex ci melo yi ñaari yoon dégg nga jeex ci tur wi benn yoon jël mboolem wujjuut bi def ko ci xaqaay et salaasa gis ko muy benn mais lii ku ñëwut ci bàyyi doo ko xam ok kon dama ci déggee ne li bàyyi considéré xaarif ci buntam rek leen ko mën a xamee mais fudul maanaam su dul considération nit mën na xam yàlla te du xam bàyyi du ko gëm du ko topp c'est possible. waaw mais su boobaa xaarifu indal xaw mi lay bokk rek. d'accord loolu leer na loolu leer na. mais su boobaa moom lu mu def moom la engagé mais du wax ne moom ci xam-xam bi bàyyi oote bàyyi li mu oote moom loola moom ku jaaru ci moom doo ko xam ala kulli haal. d'accord maanaam diggante euh, euh, euh, su ma la doon laaj firil ma zahir. zahir ba zahir kese pas baat bi mais la ñuy tuddee zahir ñun mhm. dafa am baatin rek wala zahir rek la li ñuy tuddee zahir mooy li feeñ li feeñ dafa am liy nëbbu ci li feeñ wala day feeñ rek lu nëbbu waaw lépp lépp lu feeñ am na lu nëbbu Ahmed ok kon zahir dafay am baatin wax yow lu feeñ ci yow xam nga tey xam nga tey yaa ngi may gis waaw man feeñ feeñ naa tey ci yow yaa ngi may gis Mm-hmm. waaye am na ci ñu ma nëbbu ñu ma gisul saaxir boo gis baatin la baatin boo gis saaxir la maraati bi ñoo utee rek ok ok léegi awaliyatoog yàlla gi nu mu nekkee man da ngeen may dofloo de ay yàlla gi ay yéen nag taalibi bàyyaa da ngeen muus da di utiliser baat yoo xam ne nit ñi duñ ko mun a faram-fàcc léegi awaliyatu yàlla gi nu mu nekkee ok xam nga maanaam maanaam awaliyatu yàlla gi laa kayfa wala ayna laa kayfa wala ayna num nekkee fan la nekkee nan la nekkee loolu bàyyi sa wax na ko mustailun fillaahi ay nun ayna ak kayfa loolu dafa jomb ci yàlla waaye nag liñ jàng ñun mooy yàllaa fi nekkoon kaanallaahu laa shay an maahu yàllaa fi nekkoon nekkut feek dara bi ko ti waxee ci kanam imaam ali yi mim ubbiloon buntu xam yàlla ali daf ko wax ne ko wa huwa attal aana ala ma kaana ba léegi ni fi yàlla nekkee woon te nekkut feeg dara noonu la fi nekkee te nekkut feeg dara donc kon nekk ak yàlla gi liñ jàng ci hadis buñ la delloo ci hadis fi yàlla nekkee te nekku fi ak dara waaw waaw ba léegi yàlla nekku fi dara lu fi nekk yow nii man ma nekk nii ana ma man ana nga yow sànq yaa ma ne gis nga ma ma ne la waaw nga d'accord ne gis naa léegi ana nga wan ma ana nga rek. sa diggante yàlla gisoo wan ma ne ma nee maa ngi nii laalal. gisoo ma yow. ma ne nee ma ma mënumaa gis lu maa ñàkk gis lu dul yow di yow yaay moom man yow yaay moom man maay moom xam nga boo déggee ñu ne antu huwa wa huwa ana gis-gis boobu ñuy wax bu fekkee ca la ñuy wax mais yow yow yaay kan nee ma man maa ngi nii. ok da nga bëgg ma laalal la suma parti nga ne ma lii loxo la ma laal fii nga ne ma lii dënd la ma laal. fii nga ne ma non yow sa bopp dèjà te yow tontoo ma la. non dama lay laaj léegi léegi léegi suma baaraam bi mu ngi nii lii baaraam la. waaw moom la non suma bi nga wax sa baaraam bi du yow. waxuma man maa ngi ci baaraam lii baaraam la mu ngi nii laal naa. waaw nga wax kon waxoo yàlla baram nga wax yow. kon kay baaraam ma fi. ok baaraam nga wax yow yow yaa ma yow. yaa ma laa wax nga déedéet yow laa wax nga wan ma sa bopp nga ne ma suma baaraam bi. non maa ngi baaraam bi moom kan baaraam bi kan la. non non maa ngi ñëw yow da nga ne. yàlla moo fi nekkoon bi fi dara nekkoon bi fi lépp nekkee moo fi ne loolu nga wax. ok léegi nag loolu mu ngi ci même mu ci même kàddu bi nga ma laaj. mooy saahir boo gis baatin la baatin boo gis saahir la. damay weddi de dinaa weddi léegi. téléphone lii téléphone la. lii du yàlla téléphone la. léegi yow yaa gis téléphone. <laughs> léegi laaj ma. laaj naa la. xam nga fa fa lillaahi wala walillaahi xalfal ismi wal wasfi masharun wa anhu lil uyuni al aalamina hawaajirun su ma bëggee réer rek dem yóotu baati arab taman jàngu ba non non dama lay dama lay wax ne la man li may wax ci ay texte laa ko teg maanaam tooguma fi <clears throat> tooguma fi pour indi ay théorie yoo xam ne da nga ciy d'accord ak man or que man boo ma laajoon texte du ma la ko mën a andil man man du ma bokk ci invité yooyu maanam di wax ak yow ci xel déedéet du ma wax ak yow ci xel yow xel ngay wax ak man mais yow soxla woo xel xam-xam nga soxla xam-xam nag des fois day ute xel. d'accord. ok yàlla am na feeñuwaay ci gannaaw tur yi ak melo yi boo xam ne bëti mbindeef yi dañ cee pémpéng xam nga Seydi Hadji Malick dafa wax ne lawlaa sukuunul aalamina li xayrihi la raawhu iyaanan ndax lu tax wal ilaahu qaribun su taxutoon nag nit ñi dal giñ dal ci lu dul yàlla yow yaa dal ci téléphone dal ci man la Ahmed Cissé man télé lii téléphone la lii nangam la lii nangam la loolu ay tur nga teg waaye nag gannaaw tur yooyu noona ak gannaaw melo yii yàlla am na fa feeñuwaay boo xam ne du bët yëpp ko mën a gis est-ce que yow mën nga koo gis est-ce que man mën naa koo gis est-ce que keneen mën na koy gis mais est que ñun ñàkk koo mën a gis tee na ñu gis ko parce que man ngaa gis dara doo xamoo ne moom ngay gis mun ngaa dajeeg Ahmed Cissé ñu ne la ñu ne la ah gis xamoo Ahmed Cissé nga ne Ahmed Cissé mosuma koo gis ñu la pourtant moom nga dajeeg léegi neyu ko de nga ne ah kon kay Ahmed Cissé xam naa ko parce que daje nga ak moom waaye ñàkk koo xam loolu moo tax bi ngay xam yàlla maanaam bu ñuy bu ñuy def sayru musaakara ci yow di la doxal ci yàlla benn baat ngay faree lépp lu ñu la wax rek dafay mel ni xamoon nga ko démb bu tey doo ko ñëw parce que fàttali loolu tax yàlla wax ci alquran ne fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin fàttalil parce que fàttali day jëriñ jullit bi li ngay wax nii mooy seen xam yàlla bi waa Kër Baay lii li nga fi expliqué. yàlla du lu ñuy wax ci xam yàlla bi du lu ñuy wax ci internet bi amet ok léegi yéen su ngeen di def seen yëfi xam yàlla yooyu ay turi jinne leen leen di jox wala da ngay ñëw ñu mbej la wala dañ lay yootal affaire nu muy demee seen xam yàlla boobu. déedéet bon xam nga suluk li ñuy tuddee suluk mooy suubu bàyyi ñes bi mu koy firi ci ci sirul akbar dafa wax ne maanaam suluk mooy an yansural abdu ila ma tutaalibuhu bi adratu xaaliqihi wa rasiqihi wa naafi'i wa daari'i donc soobi bi mooy li nga xam ne adratu xaalix daf koo soxla ci yow nga jox ko ko adratu raasix adratu naafi adratu daari maanaam nga yëg ne kenn loratut ku dul yàlla kenn joxewut ku dul yàlla kenn mayewut ku dul yàlla kenn xañewut ku dul yàlla loolu nag pour nga yëg ko dafa am buntu buñ lay jaarale buntu boobu mooy lan mooy yenentu bi alayhi salaatu wasalaam looloo tax ñun suñ première jéego ci yoon wi mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa parce que mooy tijji li tëju woon loolu la bàyyi wax ne muhammadun miftaaxul futuhaati sayyidi wa qaatimu silki rusli qatman muqaddama bihi naala kullal anbiyaai manaaluhum bihi sinatul adrati qirwaasama rasulun min al mawla wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulan daiman wa muazzama fa nasatuhu kanziyati lhaqi waaduhu lisaaka ataana xaasiman wa muqasima donc yenentu boobu mooy ubbi li tëju woon ceew alfatixi lima uxliqa loolu di tijjee ko ceew loolu tax nga mun a delloo yàlla li moom yépp nga delloo yàlla jëf delloo yàlla wax delloo yàlla dégg delloo yàlla lépp te lool hadis jàngale na ko jaam bi du de di ma jege ci ci ay nawaafilu xayram donc ñuy julli ci yenant bi loolu ay nawaafil la donc du loo xam ne nii mën nañoo wax ne lii farata buñ ñu teg nangam la léegi nag yàlla ne hatta ahbabtuhu fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu su ma ko nekkee man yàlla damay nekk déggam bi dégg nga wa kuntu basaruhu damay nekk gisam bi kuntu yadduhu damay nekk loxom bi kuntu dégg nga rajluhu damay nekk tànkam bi muy doxee lu ma laaj ma jox ko ko lu ma mus ma musal ko ci ndax su boobaa amatul différence sama diggante moom donc lii waaye la loolu nag du loo xam ne nit daf koo mun a teg ci marché bi waaye amut benn turu jinne bu ñuy taalif amul benn turu jinne bu ñu bu ñuy jox du turu malaaka du dara tënk bi yépp mu ngi ci biir laa ilaha laa ak la cay tegee mu ngi ci biir salaatu ala nabi jeex na bàyyi ñas laa wax nag xaw ma keneen naka nga gisee kenn ci yéen taalibe Baay mhm. toog rek ne moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf waxu dëgg ah yow dëggu nga ah, tëj dëgg caaxaan di waxu dëgg yow foo teg dëgg non xaaral yow foo teg ne kooku waxu dëgg ci xam-xam laa ko teg layal ma ko ok bi ci njëkk mooy dama dama lay dama lay wax ne la maanaam yàlla ci alquran ñaar rek la tudd xilaafaam daawuda ak aadama bàyyi ñes mooy nettali mu ne mhm. bi mu tuddee aadama ci xilaafaam mooy inni jaayilun fil ardi xalifa ay xarafam dañoo tiit ba takkale ko bi mu tuddee daawuda ci xilaafaam mooy yaa daawuda ay xarafam dañoo taq tiit ba tàqale ko léegi kon xilaafa du loo xam ne kaña gu jot rek ne man la. nga ne lan bu jóg. kaña kaña gu jot ne man la. eh waay Njaay Njaay yaa am fit nag. <laughs> balaa ngaa xam ne balaa ngaa xam ne xam ne maa am fit. no yaa ngi dugal kuu yu garaaw nga ne kon. ku balaa ngaa xam ne maa balaa ngaa xam ne maa am fit. waaw. ñooñu di wax ne ñoom ñooy xalifa yàlla ci jamono bii ñu ñeme nga invité ñu man ak ñoom ñu toog ci palaato ñoom laa wax nag ñoom. mais seen ñoom seen élément yu ndaw yooyu waxoo ñooñu de maanaam ndey mbili gi ne xalifa yàlla élément yi waxuñ na ñooy xalifa loo leen di doye <laughs> léegi léegi bàyyil ma layal la bàyyil ma layal la ba noppi non nga ne kaña gu jóg kaña guj non Ahmed Ahmed yow da ngaa polémique quoi yow ku ma la kaña waa xam nga man may xalifa Baye ñas man maay xalifa Baye Niass bi ma doon mbóotam mi maay xalifa yàlla bi Ahmed bu dee xutbaaniyatul usma bi ñuy tuddee ne kii tey maanaam mbindee fi yàlla yi moo ci raw xam nga kooku lan la lan la borom xam-xam yi wax ne moom lay doon. waaw. kooku mooy gën a dégg ñëpp alquran mboolem ku ne ci jamono moo la gën a dégg alquran. Mhm. léegi yow ku ta jàng alquran mu wér mën ngaa dégg alquran. ah kii wax ne mooy xalif yàlla mënta jàng alxuraan. déedéet waxuma kenn man ciblé wu ma kenn. ok ciblé ciblé wu kenn dama lay wax dama lay dama lay wax ne la critères yi borom xam-xam yi teg ne diw mii manees na koo tuddee bu zamaan bu fekkee ne ñoom bu zamaan moom lañ tuddee xalifa yàlla ñoom loolu bokkut ak xalifa yàlla sax. mais hmm? bu boobu dañoo wax ne maanaam bu téere yëpp raafoo na ndoor. man hmm. naa dicté waa téere yi ñu koy bind te moom du ko xool. masalan tey man mazhabu imaamu Malik nga ne ma waaw ma ne la ci critères yii lañ ko tënk bii ak bii ak bii ak bii imaam Malik nee na nangam nee na nangam nee ñu dicté waat ko ba mu jeex ñu teg imaamu Saafi masabam nangam ak nangam ñu bind teg Ahmad ibnu Ambal masabam ñu bind teg mboolem hadisu yenentu man dama koy xam parce que lan moo tax mooy man maay ki raw ci jamono loolu ñi ñii ñi nga dégg ñu di ko oote ñépp kenn jegewut ko ci. mooy kaña yi rek. kaña yi la waaw bu la neexee ba tey. léegi ma lay ko walla ma lay ko wala jaru ko. layal ma fan nga teg ne. waa ji taalibe Baay bi nekk Sénégal ne moom mooy xalifa yàlla nga ne dafay fen waxu dëgg layal ma foo teg. ok Baay Ñas Baay Ñas boo demee dafa bind Mouhamadul Misri yi. Euh, yaakaar naa ci waami daat la nekk benn téere boo xam ne Mauritanie la ëppee. moom laa lay njëkk indil bi ñuy am ja janax janax xam nga oote bi fa la commencé parce que seyxaan yi ci boppam mën na abba li mu wax ci baay bëri na ku ne xam ne ni meloon waaye demoon na ba jamonoom maanaam ñi ko wër di ko sikaral moom muy wax seyxaani ana seyxaani ana aana bu wax ne moom mooy ana daa im moom la mbir mi moom la te booba bàyyi ngiy dund bi sëriñ bi yégee loolu benn taalibe ma ko boole mu ñëw seet ci baay benn jullit timis muy jiite bàyyi na ko jiiteel mu ne allah akbar mokkal fatiha mu defaat ñetti weer ci biir néeg baay boobu nga xam ci kër baay boobu ci Medina di tarbiyuwaat ngir jotaat càkkutéefam léegi nag oote bu bari booba fa la jógee baay bind leen na leen Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu wax na ne man Cheikhu Tidiane suma xalifa moom mooy Seydou Aliou Aracim Seydou Aliou Aracim moom mooy suma xalifa mu ne waaye Seydou Aliou Aracim moom nga xam ne moom mooy suma xalifa moom ci jëmmi boppam kenn du mos dara ci man dara jaarewoo ci moom laa yanaalu dégg nga indana illa bi wasitati dégg nga Seydi Ali Aracim Baye Niass mooy nettali mu ne lii ba yeneen Cheikhu Tidiane moo ko wax gannaaw boo xamee ne leeral na ne ku xam tariqa bi jël ci askaar dem ci ba àgg ci xam yàlla sax yow taalibe Cheikh Tidiane nga yow duuloo duuloo xalifaam doo daal taalibeem nga mu ne nag Cheikh Tidiane ne kenn moom mooy xalifaam mooy Aliou Rasim mu ne Aliou Rasim moomu nag nga xam ne képp ku bëgg dara ci moom ngay jaar ñu ne ah mu ne lam wax la Cheikh Tidiane waxoon man bàyyi wa annaa maa qultu saalika wala ci beneen nas wa annaa lam aqul saalika li ahadin man bàyyi waxuma ne kenn mooy ñëw suma ginnaaw mbir yi di jaar jaar ci moom te bu beneen xalifa yàlla amaatoon ci jamono bii tëbbuwaay yëpp ci moom lay delloo ko te ñii fi nekk di oote xalifa yàlla kenn ci ñoom déggut ci alquran dégg gu mat kenn xamut ci ay xaddis ku ci jàng alquran maa ngay waxeem da nga ko yàq mbooloo leen topp ñenn ñu am xaalis ñenn ñu am mbir yu ñuy yëngat tax ñu taxaw yëkkati seen loxo ñooy xalifa yàlla waaye mateewuñ ko muy benn ñaareel bi bàyyi bind na ne xaqiqatu muhammadiya laha xalifatun fil wujudi wala yajri fi lwujudi shay'un illa bi wasitati salikal xalifa ismu isaara la junj ci kenn la jub ñi jàng arab xam ne li may wax ñi jàngut dañuy dem toog ñi jàng bi ñuy wax ñi jàngut dañuy toog parce que Baye li muy wax def ko wax ci araab bind ko ni ñi gis ko Baye ne na xaqiqatu muhammadiya benn xalifa la am xalifa boobu mooy ki nga xam ne mooy séddale looloo tax ci woy wii nga indi léegi annaa qaasimul maarufi fii kulli baldatin duut réewu Sénégal réewu Gambie déedéet fi kulli baldatin man Baye Niass maay séddale ci wa man Baye Niass maay séddale ci wilaya man Baye Niass maay séddale ci xilaafa pourquoi loolu nubuwa yenentu yàlla Muhammad mooy séddale mboolem yenentu yi ci moom lañ jëlee wilaya Seexu Tijaan mooy séddale anna rajuluha min qaafin ila qaaf ñëpp ci lañ jëlee xilaafa Baye mooy séddale donc kon ku oote ne yow yaay xalifa yàlla bi yow yaay séddale te ñii di ko wax balaa nga xam ne kenn yorut ko ci ñoom ku ko ci yoroon sama bakkan man dootu fanaan déedéet waaye Baye am na jamonoom ñu ko doon contour ba pare nekk nguur nekk ci jàmm seen bakkan fanaan lay boobu dafa oyof benn ñaareel ba mhm. yow nooy nangulee Baye ne mooy séddale parce que moo ko wax mhm. ah, suma ma waaja ne moom mooy xalifa yàlla nga weddi ko nangul ko Baye waaw xam nga lu tax Hmm. sa waa ji daf koo donu te bàyyi da koo don soo waa ji ah. dafa amut preuve te bàyyi dafa indi preuve maanaam laa yastawi lazina yaalamuun wala lazina laa ah, yaalamuun ah, yaa ngi tooñ bi ko bàyyi waxee ci jamono waaw alaaji omar ndaw a ngay dund xam nga nu mu tuddee woon bàyyi waaw abdou waaw moom mu ne mooy xutbu zamaan te bàyyi ngi dund waaw sëriñ Babacar Si ah xutbu zamaan waaw alaaji omar ndaw d'accord na acca dafa woote ak lan dafa woote xutbu ci jamono Baye. booba El Hadj Malick ngay dund. Serigne Babacar si nekk Tiwaawoon woote xalifa Seexu Tidiane ci jamono Baye. waaw. ah léegi suma waa ji nekk parcelle ne moom mooy xalifa yàlla yow nga bañal ko ko dafa mel ni yow yaa ngi yow <laughs> non bul yàq bul yàq waxtaan bi parce que damay bañ damay bañ ma jëm du kenn moo oote na moom mooy xalifa yàlla bi man ka ci Ndakaaroog ka ca Mauritanie ka ñëpp laa boole. non man kenn rek laa gis man moom man suma xam dafa gàtt man kenn laa gis mu wootee ne mooy xalifa yàlla muy sang Barhaamu Njaay. waa léegi laaj ko ne ko wax ko ne ko Habib Njaay nee na. Njaay yàlla gudd fan moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf man mii moo may tëbb fii ma ne mooy tëbb képp jaalam bi fu mu nekk moom sang Barhaamu Njaay. <laughs> ni mu ko tuddee nii sax courant maas na ma boo xam ne nii fu nekk maa ngi jàkkaarloo jëmmi yàlla ci tudd sang Njaay rek. ah kon may jëm yàlla ji man nga jàkkaarloog di eh, jàkkaarlu ma yooyu yoo nekkoo <laughs> ah man nekkuma la nekk loolu laa nekkal gis ko jàkkaarloog moom sang njaay moo woote xam moo woote ne mooy xalifa yàlla léegi waa léegi ma ne ndax yow da ngaa jàpp ne mëdët bi dafa dagg ci Baye ñas bay toxu ci keneen non Baye moomut ma bët mën mëdët bi franchement balaa Baye di juddu nit ñaa ngi am mëdët bi génnee àdduna nit ñaa ngi am mëdët Baye moomu ko faydu bi faydu bi kan mooy borom faydu bi. Hmm. bàyyi dudewuñ ko borom faydu bi de abul faydu mooy Cheikhu Tidiane. abul faydu. mooy Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu bàyyi bàyyi moomul faydu bi di. kan moom moom faydu bi. ñu jaaroon ci ñeneen ba ñëw ci moom. léegi léegi lan moo tax faydu bi ci kan faydu bi jaarut ci kenn faydu bi wax boobu bokk na ci li may li may dagg sànni ko faydu bi jaarut ci kenn atta Cheikhu Tidiane sax faydu bi jaarut ci moom. ah. waaw. jaaro ci yonantu bi. déedéet. <laughs> Njaay nag yaa am fit léegi layal ma li nga wax parce que man xaw ma li ok maanaam Baye dafa wax ne. Hmm. wasaalikal faydu. Mhm. min rabbi. Mhm. wa man sha'ahu aqiqatul Mustapha. loolu mooy lan ci wolof. def ne faydu boobu. maanaam mhm. ca yàlla la jógee. waaye sosuwaayu faydu bi mu ngi ci xaqiqaab Moustapha bi. lan mooy xaqiqaab Moustapha. danaa ci ñëw Cheikhu mu ne. Hmm. dégg nga faydu bii mu ngi jógee ci min hadrati rahman ci yàlla la joge hmm. minal asali ilal abadi kon ja waxut ne faydu bi ci moom la joge muy ñaar. Hmm. Baye Niass wax ne. Mhm. wasal faydu wala boog wasaalika faydu min rabbi comme ni ma ko waxee bàyyi wax ne wasal faydu xat habaanii faydu bi di kël na ma seexu tijaan yi bi mu dundee ba yàlla jox ko maqaama xatmiya mhm. mu dund ci ba yàlla jox ko maqaama katmiya mhm. bi mu nee ci maqaama katmiya boobu leer daf ko gand seexu tijaan bi muy génn àdduna di dee leer leer moo lakk xolam bi ba xol bi ruy ba jeex takk desatul dara moom la bàyyi di wax ne xaratul xal bi fis di yaa di kon kay Seexu Tijaan la jëm parce que leer moo lakk xol bi nga wax ba mu jeex waaw waaw xam nga léegi Ahmed dangay ngay bës sa bouton foofu li ko mooy day jaxasoo te du leer parce que boo dugalee Seexu Tijaan safara la jëm li ma bëgg wax du leer ok continuer waaw li ma bu ma paree nga ñëw ci ba ci loolu waaye bësal sa baaraam foofu dama ne Seexu Tijaan parce que dafa may fàtteloo sax li ma li ma li ma doon wax Seexu Tijaan yi yàlla daf ko may maqaama katmiya maqaamuhu maktuumun an jamii al wara mboole mbindee fi yàlla yëpp dañ leen nëbbu maqaama mi dégg nga kudut yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamul boobu muy katmiya ci biir katmiya am na lu ñuy tuddee sirrul mi sirru katmi Cheikh Tidiane daf ko ñaan yàlla mbóot moomu maanaam Cheikh yi ci boppam ak lu muy foor foor na ko nit ñi déggee nu leen neexee waaye loola wàccut faydu boobu wàccut ci jëmmu Seexu Tijaan ji xam gim xam ne moom dana génn àdduna te faydum di wàcc cëla binduloo wax ne taati al faydatu ala ashaabi faydu dana dikk ci suma saxaaba yi mu ne faydu boobu buy ñëw dafay fekk nit ñi nekk ci jafe-jafe yu metti mu ne faydu bi dana ñëw nit ñi danañ dugg ci suma tariqa bi af jën waa jën donc kon loolu leer na ci jamonoom ñi ko gënoon a jege ci jamonoom Muhammadul Hafiz as yi demoon na ba jàpp ne faydu boobu moom mooy borom waaye gannaaw si que suñ borom xamal ko ne ko du yow dem na sax ba ñi koy gëstu ci waxam wax ne maanaam man man maay borom faydu axiru samaan bi Seexu Tijaan doon wax bi mu xamee ni moom mu ñaan yàlla yàlla xamal ko borom. ñu dem tuuti Cheikh Omarul Fouti wax ne man la ñu defar ko benn interview mu ne ñu laaj ko ne ko faydu bi Cheikh Tidiane waxoon dana ñëw boo demee ci Ifadatu Ahmadiya fekk ko fi boo demee ci Jawaahirul Maani fekk ko ci loo ko wax ndax faydu bi am na wala amagut mu ne maa ngi yaakaar ne faydu booba man mii la man Cheikh Omarul Fouti mu dem ba mu yàgg ñu xam ne du moom parce que critères yi ñu joxe woon ci moom Cheikh Abdoulaye Wul Duhaaj mi nga xam. dem na ba yàlla may ko xutbaan ya muy ñaan yàlla faydu seexu tijaan boobu yàlla wàcceeku ci moom yàlla bañ ne ko am na borom mu dugg xëlwa di ñaan di toroxlu di ñaan di toroxlu di ñaan di toroxlu ngir yàlla xamal ko ko yàlla xamal ko ne ko faydu boobu kenn lay doon ci taalibe si waaye du yow mu ñaan ne moom bëgg na faydu booba buy ñëw borom nekk taalibeem masalan mooy yor lijaasaam muy wër ci këri sëriñ si ba yegg ci kër alaaji Omar Kan alaaji Omar Kan bii nekk kanan ci Kaolack taalibe Seydi Aji Malick la joge fa ñëw ci Medina ñëw kawlax ñëw seet si Baye Niass seet si alaaji Abdoulaye Niass fekk fi Baye ñaari yoon la fi ñëw moom moo wax Baye Niass ci dégg nga téere bi Kaasiful Ilbaas ne ko fay du ba Seexu Tijaan waxoon dana tàbbi ci yow xaqiqatan laa majaasa du doon majaas te itam bàyyi nee na moom moo ma wax na ma anta kabiru tariqati yow tariqa tijaan bii yaay seen ponkal mi bàyyi ne wax na ma mbir yoo xam ne duñ ko bind ci kayit te itam kenn du ko wax bàyyi ñes moomu mille diggante mille neuf cent vingt neuf entre guerre mondiale première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ci la bàyyi taxaw oote faydu bi faydu boobu nag boroom xam-xam yu bari ñoo ko ko seedeel bokk na ci Abdoulaye Wuld Hajj moomu bokk na ci doomu Mouhamadul Hafiz yëpp nangul nañ ko ko ay sëtam ñëw nañ ci baay bokk na ci mboolem ñoo xam ñi nga xam ne ay boromi xam-xam yu ma atta Mbàkke bu sa sax seedal na baay xam-xam boobu busraakumu yaa maasaral islaami an na lanaa dégg nga ruknun min al islaami xëyra mun adami su gisaan Baay Ñas loolu laay wax kon Baay mooy borom fay faydu faydu boobu nag jaarul ci kenn mosta jaar ci kenn directement ci yàlla la jógee formé woo ci yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi waaye jëmut fa yenentu moomut faydu bi faydu bi bàyyi mooy borom waa léegi bi nga xamee ne faydu bi ci yàlla la jógee ñëw ci bàyyi lu tax nga tuddee ko faydu Tidiane ok Cheikh Tidiane may gi Cheikh Tidiane am may gi Cheikh yi am parce que faydu bi ci tariqaam bi la feeñ dafa ñaan yàlla ne na ma may faydu bi feeñ ci suma tariqa bi ni ki Abdoulaye Wul Daha ñaanee woon yàlla ne nang ma may borom faydu bi bu ñëwee nekk suma taalibe parce que taalibe gi lu mu ci jublu mooy que ne na am lijaasa boo xam ne masalan danaa ko doxe maa ngi yor téere boo xam ne ijaasa Cheikh Ibrahima yëpp mu ngi ci buñ ci ñëwee danaa la ko wan kon faydu bi Cheikhu Tidiane buñ ko tuddee ak faydu ak Tijaan yi mooy parce que maanaam ci tariqa Tijaan yi la yàlla may Cheikh Tidiane ba mu àgg ci xutbu samaan Cheikh Tidiane xutbu samaan la soxla woon a bi muy wër ba mu dajeeg ba mu dajeeg imaamul kurdi yi daf ko ne ko loo bëgg mu ne ko nekk xutbu mat la bi an akunu xutban mu ne ko lakk aksaru min zalika waaye loolu taxut mu xam ko moom bi mu génnee jabalu sabib dajeeg wan jëli wan jëli na ko loo bëgg mu ne ko xutbaani mu ne ko lakk làkk aksara min zalika Cheikh Tidiane booba xamul ne dana am xatmiya te pourtant xatmiya bi mu am ibnul arabil atimi moo ko jiitu to oote woon na ko li dal Abdoulaye Wul Doxaaj dal Cheikh Omarul Fouti non yo fi mu nekk masalay ñoo la naan wax ma wax ma wax ma foog ma koy contrôler ci benn question dëgg la dëgg la boo ko defut boo ko defut du baax waaw ndax nandite yu mel ni man ñu mën a comprendre donc da nga dëggal ne baay mooy borom faydu bi ngir ah. Abdoulaye ibnu wala doxaaj wax na ko di wax na ko di wax na ko ci nga ko gëmee. déedéet ak ak li Cheikh Tidiane li ñu waxoon ne borom faydu maanaam faydu bi bu ñëwee lañ ca waxoon ca faydu loolu moo ñëw ci baay. ok loolu baay rek la ci àdduna amut. ok lan leen waxoon ci borom faydu tënkal ma ko rek te yem ci loolu s'il te mooy mooy bu ñëwee nit ñi danañ dugg ci tariqa bi afwaajan afwaajan. muy loolu gënuma la koo xam. parce que waaw kay. bu ñëwee fat fatxu day bëri maanaam nit ñi di am fatxu ci yàlla dana bëri. ñaar ñett. bu ñëwee li muy gis ci ñu ko añaanee maanaam dana bëri bëri goo xam ne jégg na dayoo. ñeent. critères yooyu yëpp a ngi ci moom. ok moo koy gën a dégg ñëpp alquran ak sunna moo koy gën a dégg ñëpp. loola mu ci mhm. loolu rek la. loolu rek doy na. ok mais ma ma wax la. Mhm. tey lii nga wax ci bàyyi. am na ñu am xam-xam. seen xam-xam rafet ñu taxaw fu dëgër bañal ko ko léegi tey suma waa ji nga xam ne moo woote ne mooy xalifa yàlla ci kaw suuf maa ngi aalu sax ci wax ji am na boroom xam-xam yi ko ko nangul ay shérif nangul neen ko ko te ni muy firee alquran ci jii jamono kenn déggewul ko alquran kenn mënu ko koo firi maanaam yow mosoo dégg tafsiru sang Njaay <laughs> waa léegi nga xam ne léegi yow ma laaj la ma laaj mhm. xam nga yow ak lu metti metti maanaam loo doon doon saay jàng nga man xam naa ne jàng nga te itam loo doon doon saay jaar nga ji suufiyanke yi ba nga xam ne léeg-léeg nga laaj ma dara loo xam ne man xam naa ne yow xam nga ko donte weddi nga léppit nag jaar nga kër Maulana Cheikh Ibrahima ma xam la ci kër Imam Cheikh xam la nga doon nit koo xam ne gëstukat nga xam naa la jaar nga ci nekk muqaddam donc kon yow yow yi nga yoon weddi ko beneen bi ci tegee mooy firi alquran xam nga ko xam nga am na benn ustaas boo fi dalal bi nga déparé bëgg a dugg ci firi bayit ay bayiti mu wóor ko ne ko maîtrise wut la daf ne la gaa yi ñu ne bu ma ci wax xam xam nga la moo tax loolu mooy yoon gis nga nit loo maîtrise wut bu ci wax dégg naa Cheikh Assane Ndiaye wax la wax du am solo ne la sama personnalité ëpp na may toog nga may laaj lu ma xamul fii ma toog man jàpp naa ne mënoo maa laaj lu ma xamul su ma leeroon ne bu ma fi ñëwee man nga ma laaj lu ma xamut du ma fi ñëw te doo ma wax wax joo xam ne dama koy teg ci sama bànneexu bakkan su dee mbiri bàyyi dama lay indil teg ci bàyyi wala ci Seexu Tijaan bu dee sufiyanke yi la su dee lu jëm ca yàlla ak yenentu ma indil la hadis ak alquran dégg-dégg bu ma la indil man soo ma toppee bu waxtu bi yaatu oon ma indil la fu ko Baye Niass wax man sama dégg-dégg amut dégg-dégg Baye Niass lay jëfandikoo donc loolu pour mu leer la du ma wax suma xalaatu bopp sa waa ji ngay wax yow ne dafay firi alquran yow loo jàppee firi alquran maanaam mooy alquran lii mu wax dafa juum. non man yàlla dana wax am ji da juum. non dama koy déglu weeru koor bi. inna allazina yu innama yubaayi'una allah man li ma dégg ci firi mi laay wax. su jàppee alquran dafay mel ni diriyanke boo jox ndugg mu dugg ci mu dugg ci waañ bi bu bu paree rek nga kontaan maanaam daf koy firi ndox <laughs> lool sa nga njaay du nit. day def alquran ah, loo xam ne kenn mësu dégg ci àddina. maanaam moom baati zaahir yi ngeen di jël ay alif laam di ko arabal nekkut ci loolu moom maanaa bi maanaa bi la lay dunduloo ba nga xam xuquqiyatu alquran njaay waa léegi léegi léegi maanaa alquran bi noo koy dundee te xamoo baat yi maanaa baat yi non mais yow nag yow nag dafa mel ni dafa mel ni da fiir nit tëri na alquran yow yow noo xara yow seede nga ne nit tëri na alquran tëri na ba naasi mhm. te xamul sax wala daali na lu muy xam nga ko ci daara ji léegi-léegi nga jàngal nit ba mu tari xam alquran waaw kooku kooku noonu nangu leen alquran baqara ba naasi xamut maanaam bi nga ne nit mënta xam maanaam yi te xamut baat yi yàlla nekkul ci baat yi yàlla maanaam ci nduq yi yaa ko waxal sa bopp xam nga baat yi ñoo jiitu maanaa yi xam nga lu arab yi di wax al madarisu qabla al masajid balaa ñuy tabax jàkk yi dañuy tabax daara yi ba noppi imaam buñ koy tànn ci xam-xam koy tànn ci texte yi alquran dafa am tafsiru alquran dafa am yoon buñ koy tafsiree boo demee ci riyaada tafsir bu Cheikh Ibrahima Niass téere yi mu ngi fii ma tiim maanaam tafsir alquran da ngay indi yaxu alquran bi tafsir bil fahmi mën naa nekk waaye tafsir bi ra'yi mënta nekk Seydina Ali dafa wax ne na rasul sallallahu alayhi wasallam dégg nga tafsirul quran bi ra'yi maanaam firi alquran ci ra'yu xam nga mooy lan mooy ku ne yu inna alladina ka innama yu bàyyi oona la yadullahi fawqa aydihim nga ne inna lasina yu bàyyi oona ka baatu mubaayaa jaay mooy sant njaay loolu fan la ko nit dégg ci àdduna loolu mooy firi alquran maanaam mu yu bàyyi oona ka mooy njaay nga ne yàlla njaay la sant maanaam jaayante ak nit ki maanaam man ma jaayante ak Ahmed Cissé loolu yàlla njaay la sant léegi nag maanaam yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf dégg nga yàlla jooju maanaam mooy nit asamaan ak suuf fi la ko nit fi la ko yàlla fekk bindut ko loolu mooy dégg alxuraan pour yow man damaa xamul loo tuddee dégg alxuraan waaye loolu dégg dégg alxuraan loolu moom sa kalaatu bopp la xam nga imaam Ali dafa ne law sakata man laa yaalamu la saalatil xilaafa gis nga ñi xamut buñ noppi woon coow li jeex gis nga ñi nga xam ne dañoo yor seen làmmeñ wu di wax te xamuñ buñ noppi woon rek coow li jeex yow mënuloo firi benn xadis mënuloo firi ay alxuraan bu jub nga xëy rek mbooloo topp le rek nga taxaw commencé di wax la la neex lu la neex rek nga wax ba yàlla dafa juum ci alquran léegi ñu ne yow yaa dégg alquran maanaam yàlla mi wax alquran am ji moom dafa juum ci alquran loolu mooy dégg alquran. lan moo tàqale maarifatu billahi ak lasrar du benn. du benn maanaam diddaani lan moo leen tàqale diddaani diddaani laa yajtamiaani ñoom ñaar duñ dajee maarifatu billaahi balluwaayu xol la asraar luy ballee ci ay ture ki nàngam ñu di ko xam la masalan xam-xam bu ñuy jëfandikoo mën na ballee ci xol de loolu du ballee ci xol asraar yooyu du ballee ci xol asraar bii du ballee ci xol non non waaw maarifa liy ci xol bokkut ak liy ballee ci tur comment tur comment tur tey allah tey masalan ma jël tey maanaam maanaam turu Ahmed Cissé ak faatu Seck léegi ma isaab turu Ahmed Cissé hisaab turu Fatou Seck mu jox ma benn adat adat bi mu ma jox ma xam ne Ahmed Cissé mii rawxaanam nangam la loolu xam-xama koy may ci tur ci laa koy jëlee ma xam ne faatu sekk mii rawaanam nangam la ma xam ne su ma bëggoon a dégg dëddale Ahmed Seck mii ak Fatou Cissé mii bu ma defee nangam ak nangam ñu dëddale wante ñoom ñaar dootuñ nekk loolu du jotewut ak maarifa dara su ma leen buggee boolee ma def ko ñu boolee jotewut ak maarifa dara maarifa balluwaaye xol la bàyyi na ne fa qultu laa ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu fa faada minni sirruhu fala ahadun yaxsidu nii ma arafa allahu samad moo tax elmu sirri ak elmul asrar du benn asrar boo demee ci Seexu Tijaan sax liñ tudde woon asrar ci jamono bi moom def na elmul sarri la ko tuddoon hay xam-xamu xay la bokkut ak sirru léeg-léeg na nga dégg sufiyanke wax baatu asraar xam nga ñoom li ñu ci jublu mooy mbóoti yàlla yi làqatu ci mbir loolu lañ ci jublu ñoom waaye jubluwuñ ci asraar bii nga xam ne ci la gaa yi di defee seen xaatim yéeg seen jaaru yéeg seen béjjén yéeg seen nangam ak nangam loolu moom léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay saw te du wesu mu dem duus du laabu sa yëg jigéen te du sangu toog ci kaw garab gi xànc ne saalaali muhammad waalaali muhammad fas mu am yéen seen maarifa bi ngeen yor nii waaw mënu leen koo tàqali ak lasraar lu tax nga wax loolu su ngeen di nekk tarbiya waaw lim biñ leen di jox ci salaatul faati waaw mais lim boobu lasraar la déedéet loolu siru la mais lasraar ak siru duñ benn su fekkee ne da ngaa jël déedéet Cheikh a déggoo la ne la bàyyi fu koy jàngalee siru laay wax ilmu sirri maanaam buñ ne lasraar bu fekkee ne da ngaa jël nag asraar boobu xam nga il faut nga xam ñaari wax Eh, inna al qawma yatakallamuuna bi alfaasin bàyyi ne na nit ñi dañuy wax ci ay baat yoo xam ne seen jubluwaay laysat ala sawairiha du saairu baat bi lañ ci jublu leneen lañ ci jublu ñoom dañu am istilaaha buñ ci jëlee buñ ne al asraaru wal anwaaru wal maarifu bokkut ak lasraar ndax dégg nga li mm-hmm. wal anwaaru buñ ko waxee jam u boobu jam sirru la salaatul fatiha juróomi téeméer la ñuy joxe juróomi téeméer mooy sirru soo bindee siin raa dégg nga muy sirru raa deux cent la siin trois cent muy sirru sirru boobu mooy war a daj li ci xol bi loolu tax ñu lay jox adat boobu waaye buñ ne al asraar ci maanaam mustalaa ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo xaatim elmu asraar buñ ko waxee ñoom waxuñ mbóoti yàlla yooyu ñoom li ñu wax mooy lan mooy masalan tey eh, Ahmed Cissé ak diw sàngam nu may da ba xaajale leen béjjënu béy wii soo ko jëlee tuur ci dara def ci nangam lii nangam loolu lañ tuddee elmu asrar elmul xawaatim loolu lañ ko tuddee mais nag sufiyanke yi ñoom bu ñu waxee asrar jubluwuñ ci loolu la il faut nga distinguer ko boo distinguer wut ñaar yi da ngay jaakaar ne benn la waaye du benn yow mhm. sa mag ak sa baay ak sa maam den daan faj rab bu baax ci lool lool lool lool yow nag nga nekk ci topp taalibi bàyyi yàlla yàlla yàlla yàlla est-ce que li sa bàyyi ak sa maam xam nga ko wala yow yàlla yàlla yi rek nga topp maa leen ko gën a xam ñoom ñépp te maa leen ko daq ah no loolu moom duma ko laal moom yow yow sa da daan da daan doxloo ku ku la da daan maanaam ku mënta am doom sa mag da ko daan téye mu am doom ñu tuddee ko ko naa ci ngénte yi muy sëriñ jëm sa baay moom fekkewu ma waaye suma ma baay nee na kenn am melutoon ni moom ci wàllum faj rab yow nga toog fii def sa yére bu rafet sa kaale ne yaa leen ko daal am naa fukki turandoor ak astaghfirullah fukki tur ak benn yoo xam ne seen boroom dafa tëx am doom man ma ñaan ci yàlla samay pexe ñu am doom tuddee ma ko man li may wax ci live laa koy wax nañ ko tasaare boo demee njaayeen sànjaal gi ma bi ma jógee am na fa ñeent am na fa am naa fa turandoo boo xam ne ca la jógee boo demee ci àll bi foo dem am naa fa ay turandoo ñaareel bi am naa ñoo xam ne taxaw nañ ci ñàkk am doom ma jëflanteeg ñoom ñuy am doom benn noppi bu ma teewee ci jotaay dañuy taxaw di ko wax donc loolu du xam-xam loolu li nga wax noonu faj rab ak wàllu xam-xamu la euh, euh, nu mu tuddati boobu noonu fajaate beeg faj feebar yeeg ñaan yàlla ak def nangam loolu dama ko def ci sama poos. ok léegi léegi maa doy rek ma ne ci. léegi su fekkee ne comme man maa ngi nopp kenn. nopp ko ba bëgg dee mënut maa nopp maa ngi koy doxaat ñaari at mënuma ko am léegi mën nga maa ñaanal ma takk ko mu nopp ma ma takk ko ci na bu dee jabar bu dee jabar nga bëgg laa la wax kay boo ko takkul yow kenn du ko takk ah waaw li ma dul def mooy boole nit nit ngir caaxaan billaay képp ku sant loolu yomb naa sang bàyyi naa sang njaay bis yaay suma sëriñ yaa ko bu xam-xam toppatuma ah, man man nag danaa la xamal benn affaire de maanaam li ma li ma doon ba mu dëgër xam nga dañuy wax ne nit li muy xaccoo du borom dooy dégg ñu wax loolu mbir ku koy xaccoo du borom. dëgg la dëgg la. da maa da maa mos a dégg da maa mos a dégg ma toog di def ay ci télé yi waxtaan di waxtaan ci mbiru xam faj rabak mbiri nangam ak ndomba geeg jën beeg nangam mos nga koo dégg. mbaa xam nga ne Serigne Jim Ndiaye bi ci jamono ñi ma bokkanteeg jamono ci moom. yaroo ci moom mu yar ma. dégg nga te xam bu baax xaw ma mbindeefam yàlla muy faj ci wàllu faj ku ko dàqoon a faj amut. seede na ko wàllu seet ci wàllu listixaar ku ko dàqoon amul tey jii man Ahmed. mais yow mënoo listixaar soo ma oowee téléphone yow listixaar moom mënoo ko moom surtout koo xam ne. waaye déglu ma soo ma oowee téléphone na ma Ahmed. xaaral comme tey ni ma nekkee Amérique nii kenn nekk Europe listixaar moom mënoo ko buñ la woowee rek jokkoo ak yow mën nga listixaar ba xam seen mbir yow. amut euh, amut bu la neexee bu la neexee sax bul coupé téléphone bi. waaye bu la neexee bul coupé bu la neexee bul coupé téléphone bi ma wax la li ci nekk te bu ma la joxee say sarax nga dem def ko nga gis résultat loolu du xam-xam Ahmed loolu jibeel faana man ma wax ci sa bopp yombut xam nga man kan mooy sama maam Layen faatim maa ngi yow nag ñoo bokk benn maam xam naa waxtaan bi xajut ci waaye maa ngi lay xamal ne xam naa du ñàkk nga xam ko maa yow ñoo bokk benn maam waxuma ñaari maam de ñoo bokk benn maam ñoo ko bokk maag yow benn maam ñoo ko bokk gis nga bi ma déggee ñuy wax ne Ahmed Cissé dafay wax ci wàllu nangam ak wàllu nangam dama leen ne Ahmed de xam naa ci ay maamam ñoo xam ne luñ la wax ne mën nañ ko mën nañ ko parce que lu tax liñ la wax ne mën nañ ko mën nañ ko xam-xam boobu ndono la loolu du mbir mu ñuy dem di jàng ci àll bi da ngay ñëw fekk xam nga ku juddu. mais yow nga ne nit woo nii nga list xaaral ko du dara ci yow. yow da nga ko jooni jooni jooni waxal fukki nit bu la neexee waxal fukki nit na leen waxal fukki nit nga jox leen suma numéro na leen oo leen ko bu leen xoolalee ba pare na ngeen ma oowaat wax ma kenn ku la ci wax ne la gisut ma rek dugaatal ci live bi nga ne ma Habib Ndiaye la nga waxoon du dëgg. ah damaa mën a yàq der de. waaye waaye waaye kanaa doo fen déedéet man moom boo ko defee moom fii laay toog wax ko ndànk légèrement dara safuma ci lan mooy sa numéro. 77. 77. 513. 513. 3002. 3002. mooy sa waaw. maanaam ku la woo ci numéro bii daf lay jot. non bii mooy mooy suma numéro personnel duma ko jox kenn koo ci jot daal xamal ne maa ko ko jox amut da ngay dagg ticket doog maa gis. amut da ngay nangam amut da ngay nangam la ma lay wax man maa la koy wax man ngay jot man ngay waxat maa ngi def live chaque samedi damay def live. yéen nga yéen ñi nga xam ne euh, yéen a nekk di dégg anglais nombre bi nombre Sénégal la ba ngay def indicateur Sénégal den soo paree ci loolu nga def 77 513 3002 yéen ñi nekk dégg français. da ngay def numéro Sénégal la soo defee li nga war a def ba pare nga def 77 513 30 02 sëriñ bi dinaa la wax dara. numéro boo numéro boo jot numéro boo oote te du boobu du suma numéro. ñaareel bi ku la laaj xaalis du man man sama sama listixaar 5000 francs la foo mënut a nekk ci adduna bi. nandi tey de bu ñu la woowee kontaan moom nit ñi neen ko dégg waaye <laughs> Ndiaye bu ñu la woowee kontaan. non man euh, Ahmed loolu dama koo defut métier xam nga yow xam nga xam nga ma. man ma man xam nga fi ma dëkk xam nga ci li ma ne maanaam man man la yàlla nattoo Baye Niass xam nga ñu bari bi may attaqué lu ñu ma dañu ma ne ma yow yàlla may na la xam-xam boo xam ne xam nga ko doo dem nga waxtaan ci télé yi wax ci nangam ngir nga am xaalis ma ne leen man li ma soxla Baye Niass na ma ko defal Ahmed maa ngi war oto bi ma bëgg a war maa ngi koy war di doxi suma soxla te amee ma ko ci xam-xam yii nii waaye li ma ci xam man leer na ma leer yàlla billaahi wallaahi tallaay bàkkuwuma barke Ibrahima Niass li ma ci xam ñi ma dégg ñiy waxaale mbindeefam yàlla xamu ko ci ah billahi lazi laa ilaha illa huwa ak suma kólle rek bàyyi ñas dama ko donn dama ko donn xam ko Ablaye Ndiaye mooy suma baay Serigne Jim njaay moo ma yar Ablaye Ndiaye mooy sama baay Jibeel Faana mooy suma suma suma maam Jibeel Faana dañ koo indil jabaram aada yaasin aada yaasin yaasin caanee ko jur Yacine Thiané Thiané Famta Thiané Famta Famta Kumba Famta Kumba Kumba Kumba Kumba Kumba Takko moom la jox wax Kumba Njere Njere Sañaan Njere Sañaan moomu ñu mayoon ko àndale sene ba busa miñ tuddee àndale buri daaro mi nga xam ne mooy suñ maam ju mag ja àndale sene ba busa boobu sene ba busaa ko jur sene ba busa ak maam jaara busa ki jur maam jaara busa ñoo bokku ndey ak baay. eh xam sa bopp neex. dëgg la. su ma demee Touba bu ma neexee laaj addiya ku sant Ndiaye yaa ko xam-xam man yow lay topp toppatuma sang Ndiaye lu man bàyyi naa sang Ndiaye nekkatuma taalibeem yow man xaw ma li ci téere yi rek damaa xam li ci téere yi ak li ci gannaaw téere yi cool lu muy bari bari ñetti at a ngi nii maa ngi lancé devis ñetti at mhm. ne yéen ñi oote xalifa yàlla ku ci ñeme nañ jàkkaarloo kenn ñemewut ci den dof kenn du oote naa ko 2STV kenn ñemewut a ñëw oote naa ko RDV kenn ñemewut a ñëw o naa ko te maa ngi koy oote fii ci sa laay bi nga xam ne adduna yëpp a nga koy seetaan ku ñeme na ñëw ma ne duñ ñëw da nga ni yi kenn ku sadd njaay ci àddina yaana duñ ñëw ci laaj yi yaa fi mën yaa fi ne yow lay topp toppatuma kenn man taalibe taalibe imaam Cheikh laa kan taalibe imaam Cheikh ponkal mi imaam Cheikh dafa jàng laa ilaha illallah imaam Cheikh moo raw ci réew mi lu ciy preuve ku ko jàngal lu mu jàng fu mu jàngi maa ko xam laaj ma ko laaj naa la fu mu jàngee ku ko jàngal ak lu mu jàng. 1968 la mokkal alquran ci Mouhamadou Mahmoud Rabbani. Mhm. ba mu ko mokkalee bàyyi Niass moo ko wax na ko desal ci daara ji ñetti at. di jàngal xale yi di leen bindal dafa rafet loxo ci mbind kaar bari kàlla. Mhm. xam nga ku xam nga ku mokkal alquran def trois ans di jàngale alquran di ko bind te doo ko gis mooy imam Cheikh. 69 70 71 72 ba 73 ci la ko Baye ci la Baye Niass dal di maanaam bi mu amee ñetti at 60 1969 70 71 72 73 Baye dal da ebal 71 kon maa ngi juum 71 68 la mokkal alquran 69 70 71 la ko Baye Niass dal di jël jox ko baayam ndax Baye moom méngoo woon ay mbiram Seydi Ali Cissé Seydi Ali ko jàngal lenn ci xam-xamu fiq lenn ci xam-xamu nahu lenn ci xam-xamu sarfu lenn ci xam-xamu luxa bàyyi récupéré waat ko waat 1973 teg ko ci wetam darsu yi bàyyi ñes mu ca jàngale imam Cheikh ca la doon toog ah ko jàngal laamiya laami laamiya laamiya laamiya bii ñuy jàng bàyyi ko ko jàngal bàyyi ko jàngal mu àllaqaatu saba bàyyi ko jàngal soxoraaw jaahiliya ba noppi nag bàyyi jël ko ebal ko mu dem Qahira jàngi xam nga bi mu demee Qahira première école bi mu dugg di jàng ci Salisa Edaadiya lan la jël première première la jël ci quatre-vingt-dix-neuf élèves. maanaam maanaam man man mi jàpp na imaam Cheikh jàngul dara. bàyyi maa lay wax xam ne imaam a jàng. imaam Cheikh bàyyi quatre-vingt-dix-neuf élèves quatre nga ñëw jël première. non li may laajte mooy. Mhm. man damaa jàpp ne imaam Cheikh jàngul dara dara. kon jàng ci réew mi. kon jàng na ba Baye Niass ci boppam jàngal na imaam Baye Niass darsum yi mujj a jàngal 1973 jëm 74 la imaam Cheikh ci ña doon jàng ci darsu boobu la bokk. léegi mu jugee fa dem ba ñetti weer di ko jàngal. mu jugee fa dem ba Xaaxira mi dëkkab xam-xam élèves yëpp moom mu jël première. ci 99 élèves imaam jël première. xanaa Baye bi mu ko déggee kontaanoon na. ba mu demee ba muy am bac d'office la am avec mention très bien. ma ne xanaa Baye kontaanoon na bi mu déggee loolu de. <laughs> waaw déglul ma continuer rek nga xam ne ba mu ñëwee ak la ko Baye ji wax. 1973 74 75 76 ba 77 maanaam bi mu amee bac dafa dugg ci kulliyatu kulliya bi nga xam ne moo fa nekkoon muy kulliyatu sariya ba fa nekkoon wàllu hadis la imaam doon suivre dem na ba am licence ci hadis licence ci elmu hadis. waaw bi mu ñibbisee benn at la def bàyyam génn àdduna Seydou Aliou Cissé. ndeysaan kon 80 la ñibbisi. 81 euh, waaw. bi mu ñëwee xam nga quatre-vingt-un booba booba quatre-vingt-un boo xoolee imaam euh, bi Baye Seyda Ali bi muy génn àdduna xam nga histoire bi Baye dafa waxoon ne Seyda Ali na jiite jumaa ji su fi joxee nañ ko jox diw nañ ko jox diw nañ jox imaam imaam Assane su fi joxee ku yàlla soob du loolu la waxoon. Mm-hmm. mu ànd ak imaam Assane dem Makka mille neuf cent quatre ñu dajeeg benn borom kës fu borom xam-xam bu mag Seydi Mouhamed xaw ma nan la tuddati dama fàtte la mottali ci turwa kooka biñ dajeeg moom mu testé imam Cheikh ci wàllu hadis bi mu ko testé ci wàllu hadis def ko ne ko yow danaa la jox lijaasaab hadis yi ma am yëpp danaa la ko jox man maa ngi juróom benn téeméer ci lijaasa hadis danaa la ko jox waaye nag man mosuma jox nit lijaasa te duhut ne yonent bi lay sàkku ndigal mu ne ko may ma ma dugg ci xabru bi mu dugg ci xabru bi génnaat ne ko yenentu jox na ma ndigal ne naa la ko jox mu jox ko lijaas yooyu imaam Cheikh kenn rawut ko ci réew mi lii man maa la ko wax mais moom dafa bëgg sañse xam nga bëgg yëfi buur di jël oto yu nice xam nga di dëkk ah yu nice ce que est-ce que est-ce que est euh, euh, imaam ni mu mënee sañse di ba pare ba pare imaam ay verre yu baax lay takk ay kaala yu ne muut léegi ndax su fi yanke la imaam Cheikh ndax moom su fi yanke la noonu la xam-xam bi bëree noonu la xol bi laabee noonu la tabee te loolu ñëpp a ko xam imaam sufiyanke la ndax imaam gannaaw bàyyam a ko jox lija baayam bàyyam jox na ko lijaasa boo xam ne xam nga lu bàyyam bind ci lijaasa ba hmm. bàyyam dafa bind ci lijaasa bi ne man a Seyda maa ngi lijaasaal sama doom boo xam ne adib la arib la ku am xam-xam la ku màgg ci yàlla la koo xam ne masratu qalbi la mbégteeg sama xol la maa ngi koy jox lijaasa yii nga xam ne su ma baay ma lijaasa yi nga xam ne baay na sama ko joxoon te baay ña wax na ma ne fukki lijaasa ak benn ci wàllu hadisu al nu mu tuddee lijaasa hadis am na ko jox na ma lijaasa yooyu yëpp na ma lii soxlaatuma ci ndollal mboolem ijaasa yi baay ña am yëpp dajale na ko bind ci lijaasa bi jox ko Seydi Ali Cissé Seydi nee na jox naa ko sama doom imam Cheikh. ko kon kay imaam xam na yàlla tarbiya na. ah loolu ngay wax loolu ngay wax ndànk. xaw ma imaam imaam lim nee naa la imaam la ma ko waxoon rek xaysuma allal imaamu allal huda wal ilmu imaam fu mu wàcc xam-xam wàcc na fa njub wàcc na fa. ma dolli la ci dara ma dolli la ci dara Cissé ci sama sëriñ. dama la question bu ma neex nag. Mhm. maanaam imaam Cheikh. li gën a jafe ci preuve nga xam ko gis nga téere yi maamam taalif. yi ci xam ne dañ ko bindoon ak loxo teg ko kenn moolut ko maanaam imaam moo jëlaat ci kattanam ci xaalisam ci dooleem ci xam-xamam moolaat ci téere yu bari yañ ci mooloon yépp mu moolaat ko li gën a jafe mooy nga jël benn téere jël benn téere def ko taxriij taxriijul hadis mooy kaasiful ilbaas ni mu toll imaam jël na ko mbooleem fu baay waxee ne yenentu nee na imaam ne hadis bii diw sàngam génnee na ko ci téeréem nangam diw sàngam génnee na ko ci téeréem nangam diw sàngam génnee na ko ci téeréem nangam atteeb addis bi nangam la bu bàyyi waxee ne wax bi saxaaba sàngam wax na ko imaam dana wax ne saxaaba boobu moo wax wax ji diw te nettali na ko diw nettali na ko diw nettali na ko ba mu jeex muy taqaarijul addis ak tas ko yépp imaam moo ko def kaasibul elbaas loolu ku jàngul mën na ko. Njaay sant naa la gërëm la noon naa am la fii sa teewaay. kenn rawul ni ñaa ngi may laajaat euh, sa numéro ma joxaat leen ko beneen yoon 77 la 513 30 02 77 513 30 02 bu fekkee ne English nga dégg da ngay def 77 513 30 02 that's the number ah yal na yàlla fayal ñu la. amiin kontaan naa lool dajeeg yow te maa ngi yaakaar ne bii du doon daje bu mujjanteel. incha allah. masala yi la topp naan la wax ma wax ma baat yi la topp naan la wax wax leen ne heure bi xaju fi. jaara xaju fi. kontaan naa jërëjëf yal na yàlla sàmmal la boppam bi. jërëjëf man it kontaan naa ci yow. jërëjëf maa ngi lay maa ngi lay ñaanal yàlla nag man. yàlla delloo si la ci suñ diina ji ak suñ tarixa bi ak suñ faydu bi ndax ngeen ma convaincre rek yow moom tey li tax li tax ñuy ñaan li tax di nga wax lu leer li tax ñuy ñaan yàlla delloo si la ci mooy li ngay def nii maanaam dañ koo jàppee dimbale lislaam ndax li tax mooy ñu bari danañ ci xamee te mhm. itam yow mi koy def maanaam sa tolluwaay ci gëm-gëm fu mu toll da nga ko wane nekkoo hypocrite yàlla bëggut ku doon naafiq boo gisee yàlla wax ci alquran ne dégg nga yi jigéen yi ak yu góor yi danga dégg ñu wax ñi gëmoon yàlla ne leen ñun kat ñoo yéen a àndoon waaye suñu waxee loolu dañ leen naan déedéet yéen da ngeen amoon sikk dégg nga ak sikki sàkka ba arrière deltu gannaaw aduna wor leen donc kon ñu ngi lay ñaanal yàlla nga dellusiwaat ci diine lislaam bi nga nekkoon dellusiwaat ci tariqa bi nga nekkoon parce que nag tariqa bi soxla na la lislaam soxla na la aduna nag ak Sénégal dañu yomba sànni nit yomba sànni nit mooy nit ku juum benn yoon nañ la jël xalab la ca mbalit ma duñ la delloo ci société bi nit bu juumee ñaari yoon ñu ne moo ko tey éeféer la naafiq la yóbbu ko ca xaj ya def ko muy nit ku bon te ñi ñuy fonk ñu ci bari ci nit ñi ñu ngi leen di fonk di leen sukkal te di leen raamal waaye seen xol dalut ci yàlla seen xel dalut ci yàlla seen jikko setut donc te teewut yàlla mu ngi leen attan ci société bi ba boole leen ci ba nit ñi di leen tuddee ay nitu yàlla te buñ leen uññi woon seen mbir aduna tukki kon nit ñi nañuy bàyyi xel ne bu nit juumee nañ ko delloo si bu téyee ñu delloosi waat ko bu téyee ñu delloosi waat si ko balaa bis ji jomb rek ñu koy delloosi di ko delloosi yàlla na la yàlla delloosi si diina ji ndax nga te man bugguma suma mbokk génn ci diina ji kontaan naa bu baax nag ci yow. jërëjëf. jërëjëf. bu subaa oustaz Assane laa fi am bu soobee yàlla ci lënd bi 17 heures heure Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm nii rek la euh, sang Barhamu Njaay ñu ngi koy xaar suma wëllëre la woo naa ko wax ak moom maa ngi xaar tontoom Coura Macky waxtaan nañ ak moom mardi dina ñëw incha allah mercredi Cheikh Aziz Ndiaye dina ñëw incha allah eh, <clears throat> bëgg neen daal ngeen xam ne daal bàyyiwuñu kenn dinañ waxtaan ak ñépp docteur Khadim buso moo ragal a daje ak Cheikh Mbacke Sakho waxtaan ak moom lu tax mu ragal ko ndax dafa amul xam-xam bu mu dajee lu Cheikh Mbacke Sakho di wax xawma waaye ñu ngi koy ubbil suñ bunt bu fekkee ne moom xam-xam lay liggéeyal te gëm ne na li Cheikh Mbacke Sakho di wax baaxul neen ñëw weddi ko askan wi jëriñu mais su fekkee ne nag yéen ay boroom xam-xam ngeen Cheikh Mbacke Sakho ñemee génn taxaw jàkkaarloog àddina yéen ngeen di daw loolu du dem Ousmane Touré ak Alpha Ba dañ war a am waxtaan peut-être ñu defee ko fii suba waaye leeragul ba tey képp daal koo xam ne boroom xam-xam nga wóolu nga ne boroom xam-xam nga boo jokkoog man ma invité la mais man invité wu ma kenn kuy jàng kuy raam di jugee ci suuf ustaas bu amul tur amoo mbooloo amoo bës duma la jël parce que man duma guy gu daar bu kenn di jàngee ci man yéeg sëriñu nandi tey laa kilifa laa ci kaw laa nekk ku ñi ci kaw rek laay jëflanteel mais oustaz boo xam ne kenn xamula amoon nombre de vie <coughs> waaw man dama bëgg a waxtaan dama du fii du fii de fii ñu prouvé ñoo fiy jaar ah jàngaluma kenn yéeg joxuma plateforme kenn ku ndaw ponkali kese parce que man duma dem góorgóorlu ba nekk ku mag di oo ñu ndaw ñi di leen jox plateforme duma ko def de ku amul bës amoo tur defoo ay vidéo yu yàgg nit ñi xamuñ la amoo tur du fii ngay toogee jàlla ca xaj nga dem waxee foofu da ngeen di góorgóorlu ba yegg ci kaw tolloog ñi ci kaw man nii lay fonctionner bërki démb ak démb sonn naa ci ustaas yu ndaw yi <clears throat> waaw Cheikh Mbacke Sakho laa bëgg a toogal duy demee noonu de ku bëgg a toog ak Cheikh Mbacke fii fii Ligue des champions la du newetaan da ngeen di rampe maanaam fi roi des arènes la nekkul ay ñu ndaw ñii di ustaas su xoddamte ku yooyu maa leen raw de du ma seen morom de loolu amu fi waaw ustaas Mohamed Mbaye moom amul xam-xam bi waaye suma xarit la suma xarit la rek ma di ko faral indi ko fi. waaw oustaz Assane Touré damaa bëgg Moustapha Gueye indi ko fi ñooñu moom amuñ mérite ñëw fi mais dama leen di dimbale nii rek jàppale leen Aziz Ndiaye bon ñëw na keroog xaw na kii ça va quoi mais fii daal na ngeen xam ne Ligue de champions la yéen a ngi dégg oustaz bu amul mbooloo amoo tur yàgguñ laa xam bu ma message duma la jël loolu leer na de man ay ñoom Madiama Fall laay xaar ay ñoom Abdou Rafaay Mbàkke ñoom Gana Messere ñoom Adi Niass ñoom Sang Ndiaye ñii laa bëgg a waxal <laughs> ñun ndaw ñi baal leen ba ko rek <laughs> je suis vraiment désolé mais mënumaa toog ak yéen su ma leen laajee du ngeen tontu di da ngeen may tardel te man nante yi den ma respecté nante yi den ma respecté 19 heures jot ñu taal seen téléphone yi seetaan loolu du caaxaan <laughs> loolu du caaxaan naa ah. ngeen baal ma ustaas yu ndaw yi rampe leen ba ci kanam ay deux ans ci kanam fekk lii gën a màgg nekk télé yu bi rëy di dem YouTube direct àdduna di ko waxtaanee bon mun naa leen a sarax jël leen na ah. wala ma bàyyee leen suba taalibe bi mu di leen jël di leen laaj mais man du mën a wax ak yéen dama bëgg mu leer. beneen bi ci des su ma su ma amee waxtaan nii am invité jarul ngeen di def demande seen bouton yi dafay yàgg parce que du leen jël leen rek laa leen may seen clavier ngeen di commentaire. waaye def demande su ma la jëlee looy wax lan ngay wax <laughs> yow kay ñëwal pour déglu rek oustaz Omar sàll docteur Ahmed ñu ñooñu laay xaar quoi di waxtaan ak ñoom su ko defee nit ñi mën a jëriñu mais oustaz yu ndaw yi moom téye leen seen message ak seeni appel loolu dama bëgg mu leer nañ laayeen yi moom amut benn laayeen bu ñemee toog jàkkaarloog man maa leen di wut di leen woo pour ñu invité layeen li Seydina Limaamu Laay nekk mais layeen yi dañuy daw xaw ma nag dañoo mënta défendre Seydina Limaamu Laay wala dañoo amul xam-xam wala dañoo gàtt xam-xam waaw non du jël tuubaay sëriñu tuubaay laa bëgg a waxal sang njaay képp laay waxal mais jëluma <laughs> benn booy sang njaay ñooñu moom ñoo ma raw ñoo ma gën ñoo ma ëpp xam-xam duñ suma morom man mais waxumaak ak ñoom loolu kay méttiwut man dinaa gis sang njaay muy suma xarit am suma numéro mu am numéro man nawloo ko mu nawloo may jël ay tuubaay ak oustaz Omar Niang jëluma kenn ci ñoom sang njaay laay jël wala ñu ba waaw te jikko càggal laa yor su ma toogee tudd sang njaay nangute ñëw ku ko bëgg yàq ma indi fii nga wax ko lu ñaaw lu bon lu xesew te suma yoon nekku ci waaw parce que bu ma ko bëggee ba invité ko daf ma war a bëgg yéeg ma ñëw uyu suma invitation bu ma ko bañalee nag ba xam ne daf ma xeeb ma xeeb ko rek <laughs> ku fi ne sang njaay dafa baax ma ne dafa bon taalibeem bu fi dugg ma bloqué la aw ma ci maslaa ndax mbëggeel yëg a koy fay man duma taalibe sang njaay lu mu am ci yàlla suur naa ko wax dëgg neex yàlla blague à dama ko bëgg rek te yàlla tax duma ko yàqal suma kàddu duma ko yàqal ci suma làmmiñ ku ko bëgg ma bëgg la ku ko bañ ma bañ la fu ñu ko waxee lu ñaaw ma défendre ko mais man duma taalibe ma lu ko yàlla may na jël moog ay ñooñam man bëgguma waaye bëgg naa ko suma xol bi te yàlla tax point waaw mbëggeel googu nag yëg a koy fay waaw murit yi am naa imaamu mbàkki dafa xawa feebar dina ñëw man suma bunt dafa ubbeeku ñi gëmut yàlla saltige yi ti tiwaawoon laayeen Medina Baye ñett neen ñëw ku ñëw daal ma taxaw taxawaayu wedd gësëm la xam-xam jëriñu nit ñi jëriñu surtout loolu la rek Cheikh Baye Niass awsa bi dina ñëw waxtaan neen nangul na ma ko dina ko indi ma jama faal message naa ko jotaguma ko maa ngi woo boroom xam-xam yépp ah. mais yéen ñu ndaw ñi moom baal leen ma ko rek <laughs> ma ne ko <laughs> baal leen ma ko du ma jël benn ustaas bu ndaw yéen ñi nga xam ne <clears throat> yàlla dafa dogal ngeen euh, waaw lii lan la ci ay borom xam mooy pour ñu am jotaay pour koo xam ne dana mën a tegg leen teg daal waaw man moom pare naa incha allah. comprendre ma dégguma xaar sonn naa ci ustaas yu ndaw yi nag. waaw Cheikh Ahmed. man de Abdoulaye Seck laa tudd dëkk Kaffrine li ma taxoon jug moom mooy waxu Mbàkke Sylla boobu nga xam ne ñu ngi ko tuddal ci ay borom xam-xam yëpp ñu am jotaay pour koo xam ne dana mën a teg li teg daal waaw man moom pare naa incha allah waaw Cheikh Ahmed am ngay ziar si jàmm man de tudd. salaamaaleykum Abdoulaye Seck na nga def mbayeen ci jàmm euh, yónnee ma yow say ouvrage maanaam waxtaan yi nga doon def ak YouTube yeeg yooyu noonu euh, nga wax ma tam sa niveau xam-xam ak yooyu fi nga toll ma seen ndax mérito pour ñëw Ligue des Champions après dinaa la invité mais man xaw ma la mosuma dégg sa tur sa gisuma sa photo jërëjëf yal na yàlla dool la jàmm dama sonn lay dama dama sonn ci sëriñ su ndaw si ah dem leen ngeen jàngi yéeg ba ñëw seen CV laa soxla pour mën a wax ak yéen am na kenn dama koo bloqué dama ko bloqué waaye oh su ma ko bloqué wutoon ma won leen ko bloqué naa ko oustaz bu ko gën a soof naan <coughs> ma ne ko laa hawla wala xóot illa billah ca xaaj aca génn ci biti euh, yéen ñi nekk Amérique soxla suma numéro moom laa leen di jox ni nine two nine eight six seven eight six four three moom la ah suma numéro whatsapp bi ngeen ma mën a jotee nga xam ne ko whatsapp léegi ma jot ko léegi 78 la 471 57 01 ah muriti muriti muriti est-ce neen boroom xam-xam ñu ñemee ñoo bëriwul da nga dégg ñu ne euh, euh, moom moom am euh, xam-xam lool waaye te saay saay waaye <laughs> xoromu lool waaye <laughs> xoromu lool waaye nga muriti su ngeen ma bàyyiwul maa ngi dégg jëw yu rafet yi ngeen may jëw te man seriñ Touba rek laa bëgg su ma diggante yéen nag sëñ Fallou moo koy at. moom dafa neexut a jàkkaarloo lool waaye <laughs> kàddu gi dafa dëgër <laughs> kàddu gi. bu leen ma fontoo oustaz Makhtar Sarr dafa am xam-xam jàkkaarloog man su ma ko laajee du tontu dara kooku moom su ma ko amoon dama koy lekk. oustaz Makhtar Sarr yàlla na ko yàlla nattu rek. ba mu nangoo jàkkaarloog man billaahi wallaahi tallaahi ngeen xam ne xamut sarab ndeyam oustaz Makhtar Sarr duma ko lekk duma ko saaga duma dugg ci vie privée waxtaan xam-xam rek mat daane ndeyam daane papaam daane ko li xam yi mel ni ku góox yaawur ni ma ko sippi indil leen ma ko iril leen ma ko mu ñëw wax leen ko mu ñëw ñu waxtaan ci xam-xam duulkat bu ndaanaan bi mu doon fa lay toog rek di déglu mbaras di décortiquer yi di saaga nit ñi bis bu toogoon fii jàkkaarloog man Maxtaar saar ngeen weddi ko dafa xam dara Maxtaar Sarr moom xamul dara dara dara dara dara dara la xamul amul xam-xam ci duulkat yi am audience la nekk ci télé bi di wax rek waxal leen ma ko ne Cheikh Ahmed Cissé mu ne bu fekkee li ngay wër si télé yi di duul yàllaa tax ngay duul di wax moom pare na pour jox la plateforme ngeen ñëw toog waxtaan boo xam ne ci ñett lay tënku alquranul karim sunnatu rasulillahi ak lu tasawuf képp duñ ko jéggi bëgguma xam vie privée bëgguma ko tudd ñu waxtaan ci loolu pour askan wi jëriñu ma wan leen ne moom xamul dara waaw day taaxuraan rek toog rek Maodo mu ni bu sëñ Babacar si mu ni Seexu Tijaan mu ni loolu du xam-xam balaa Maodo xam-xamam fi balaa Seexu Tijaan xam-xamam fi loolooy xam-xam loolu bu wéree ci la waxi Maodo di wér ndax ñoom seen wax ñu ngi ko dëgëralee ci wax yooyu ku xamut wax yooyu amoo xam-xam voilà suma numéro bu amerique bi yaa ngi ko doon laajte yow maa ngi la gis foofu 929 867 8643 loolu la man nag soo ma yónnee message. ñaari message mooy dugg sa téléphone directement benn bi daf naan asalaamaaleykum waxal farata gàttalal message bi man la Cheikh Ahmed Cissé bul ma woo yónneel vocal <laughs> premier message bi ngay njëkka a jot boo wooyee beneen bi mu ne du ma wuyu numéro bu ma xamul yónneel vocal wax ma sa tur ak sa sant wax ma loo may doyee yàgg-yàgg dinaa la tontu incha allah man nii laay fonctionné waaye ça va CV salaam wax man ndax Cheikh Ahmed la dama la soxla dama lay déglu ne pat jot amul de salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh man la Ali Soble soxla bii ak bii la am ci yow point man bu ma ko dégloo muy farata maa lay woo mais da ngi ñuy ñëw naan ça va. sëñ sëñ bi ñu ngi lay bu baax a baax mais sëñ bi wax dëgg fa yàlla oustaz fii Oustaz si ndaw yi moom soxla fii ñu mag ñi leen soxla ñi nga xam ne. nag it day bàyyi ak jàmm sëñ sëñ ñu ngi lay liggéey bu baax a baax mais sëñ bi wax dëgg fa yàlla Oustaz si ndaw yi ko waxee sax ñun si fii ñu mag ñi leen soxla ñi nga xam ne buñ jàkkaarloo yow da nga téye sa dëgg la suma taalibe yi sax ñu ngi réagir xam nañ ne sëñ bi bëggul lëndëm nay leer taalibe yaa ngi réagir nii bëgguñ loolu. inshiyam alhamdulilah macha allah naka mbir baalu jàmm macha allah des benn soppe la. dégg li salaamaaleykum macha allah Cheikh Ahmed sa benn soppe la waxul sa turam. lii jàmm la. macha allah des benn soppe la bu dëkk Sénégal waa ku la bëgg. kii sa benn soppe la bu dëkk Sénégal ku la bëgg yow yónnee vocal ne woon nii laa tudd présenté wolo sa bopp lii ba kañ dama sonn. yii rek moo tax du may wuyu ah. jaare naka yi man de dama lay topp chaque jour vraiment yi ngay def nii am na solo trop initiative bi nga jël vraiment fii lañ doon xaar waaw lii mooy sa wareef yow fii lañ doon xaar. xeex yi ngay am na solo mais fii moom vraiment yaa ngi génn fu nooy mais ñun invité Alpha Ba. yow mi ma woo nii nii kekeke nga xam ne maa ngi live maa ngi lay bloqué nga génn suma bloqué naa la dem nga. Alpha Ba ah, ci moom la des yéen a ngi Alpha Ba Ba rek. Eh, maa gaaw ci bloqué nag ma ne ko maa gaaw ci bloqué nag. yow mi mujjee 44 tey nga ma bàyyi bala ma laa bloqué ah. kenn mës na koo gis topp ma di woo rek doo liir li ma la yónni jërë ngeen jëf bye ba suba incha allah yéen ñi nekk Amérique am problème mu papier ngeen bëgg ku leen taxaw ci seen kayit ngeen xam ne mënu leen koo wax ah dama leen di jox waxukaay bi ngeen woo ko mu dimbale leen am na sutura baax na am na xam-xam mën na dimbale nit hmm? trois cent un love huit cent quatorze love trente-six quatre-vingt-dix-neuf Amérique fii la trois cent un love huit cent quatorze love 36 99 yéen a ngi dégg ma wax la ko ci anglais 301 814 3699 301 814 3699 bye bye ba suba incha allah <coughs> alpha ba ñeme wut a ñëw jàkkaarloog man yéen ñi ngeen foog ne ñeme neen